sama kii moom naan na lëndëm de tegal ay son ah <laughs> Modou Kairé Lo ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax j'espère yaa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah le temps yi léegi daal dafa mel ni après une heure et daal moo gën a jàppandal <laughs> mooy gën a jàppandal macha allah. donc euh, macha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu donc euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah, waaleykum salaam wa rahmatullah ah Abdoul Aziz Seck Abdoulaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax waaye j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax alhamdulilah macha allah donc euh, comme d'habitude rek ñoo ngi ci. ñoo ngi ci mbir yi sëñ pap pap maa ngi lay ziar bu baax a baax donc euh, ñu ngi ci mbir yi rek di xool dëkk bi donc di am léeg-léeg mbetteel suñu déggee yenn wax yi léeg-léeg tamit ñu kontaan bu ñu gisee yenn taxawaay yi ndax tamit dëkk bi wax laaj taxawaay dëgg macha allah Ousmane Sène maa ngi lay delloo ziar bu baax et eh, ça c'est le ça c'est le très grand assureur lu wax turam sax moom.

ñu ngi lay ziar bu baax et eh, Mamadou Badiane dafa mel nag gis nga lee fii daal euh, Ablaye Gueye maa mais maa leen raw ji dafa mel ni daal l'équipe de nuy daal ndaanaan yëpp guddi la nekk man live guddi bii daal vraiment mbir la mais xaalim seetal ma sama coach Aïcha Aïcha Aïcha Saba Diarra waaw waaw waaw defal génneel ma ko génneel ma ko Seck Abdoulaye wallahi azim islam dafa tuub lool Sénégal dinaa si ñëw léegi sax ci histoire ci histoire islam ci Sénégal l'islam mu ngi dugg Sénégal vers mille quarante entre mille quarante et mille quarante quatre lii c'est une unanimité de tous les historiens ñoom ñoom ñoom ñoom tous les grands historiens nangu na ni l'islam au Sénégal mu ngi dugg en mille quarante donc li ko dooleel ñaari mbir la koppar la ak xam-xam dafa am solo ñu bàyyi ko xel koppar la ak xam-xam c'est les grands commerçants arabes et africains le commerce euh, intra intra africain qui gën a véhiculer l'islam mais la construction de grandes universités comme de Tombouctou université de l'université de Pire donc l'université de Pire Mom, mention spéciale ça a été fondé par Khali Amar Fall chaque fois à Morco ko fondé en 1603 c'est à dire université n'est-ce pas 1603 et bu muy en 1603 Dara. la daara boobu formé na ay kàngam yu nganda nganda ku mel ni Thierno Souleymane Bal, bii ñu tuddee juma ji nga xam ne naa si ñëw léegi euh, université bu la génnee Abdoul Kader kan bi xam moom la defar dool révolution bi ba teg almaami bi fële ca fële ca Matam ba moom moo nekk le premier almami si université boobu tamit la génnee El omar Omar yu Tall al mujahidul akbar donc sa grand mujahid la moom tamit université Pire boobu la génnee Malik Sy maa ngi si bundu ku siiw la ku gaay xam à pir gu réy wallaay moo max wallaay azim macha allah ñu ngi ziar bu baax ñoom mataar ndumbe Diop bu kokki foofu la génnee n'est-ce pas kàngam yu mag yooyu yëpp moo tas andi andi école ci loñ moo andi école Gangel Gangel ak Cheikh Moussa camara ko kenn du ko présenté waa Sénégal il a beaucoup écrit sa vision du jihad wax dëgg yàlla naa si ñëwaat léegi par rapport au jihad donc lu extraordinaire la école ndam njarnde euh, jaamal école yi yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi génn ñu ngi soqeekoo ci ay kàngam yu demoon abreuvé wu ci université Pire génn ñëw seen gox daal di fay euh, daal di fay taxawal mbir ah moom mas que di waa Pire nga ah macha allah tu as de quoi être fier donc tu as de quoi être fier wax dëgg yàlla ah Matala Sougou ah man nag fii nag la waaw Mamadou Badiane li mu wax dëgg la fii moom euh, ay fii c'est le c'est le c'est le c'est le live des nandités <laughs> macha allah donc. je disais école Pire boobu euh, bi nga xam ne Xaali Amar Fall moo ko taxawal ci 1603 daf ko évoluer daara la tàmbalee balaa mu nekk université euh, fa la Thierno Souleymane Baal génnee Thierno Souleymane Baal nag dama gis ni am na lu bëri lu ñu war a jàng ci moom am lu bëri lu ñu war a jàng ci moom li ma ko mëggee maa ngi ziar bu baax a baax donc bokk na si war a jàng ci moom dinaa si lim ñeenti mbir yi nga xam ne waxoon naa ko ba paas nee naa ñun balaa ñu koy tuddee juma ñun amoon na lu ñu gën a lu ñu gën a soxal. balaa ñu tuddee jumaa ci Souleymane Ball dañoo bëggoon ni jël enseignement am andi ko suñu l'école ba pare ñu jël révolution dugg suñu biir constitution ñu jël jàngaleem appliqué ko suñu biir état ñett yi bu ñu ko defee rek alhamdulilah ñun kontaan nañu lala ci Souleymane Baal njëkkoon théoriser xam ngeen ni il a théorisé euh, l'absence de parent de parenté dans dans dans la chose publique c'est-à-dire que il avait dit que ki nga xam ne moo war a nekk almaami bi balaa moo yëg en fonction ñu gëstu ñaata la am ci xaalis bu ñu yem ci moom ñu tous ses proches ku nekk ñaata nga amoon ci xaalis bu ñu ko nous pare ñu xayma garder ko xool su demee ba pare ñaata la am réduction des comptes madame lii sincèrement moo ko théoriser dans dans la modernité bii ñu xam wax dëgg yàlla muy benn ñaar mu ne ki nga président mu ne képp ku ak wala nga bokk ak moom bàyyi wala ki nga xam ne seeni ay ñaari waajur ñoo bokk ndey wala bàyyi wala ki nga xam ne eh, jabaram ak kooku yéen a bokk ndey wala si waa kër baayam ñii ñëpp kenn mënutul am post ci état bi Thierno Souleymane Baal li la théorisé woon lii c'était l'Almamia ah soxna Sophie borom anniversaire bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaal gudd fan donc euh, macha allah donc muy secondo cest à que tout membre de ta famille de ta famille paternelle comme maternelle de ta belle famille maanaam ñi nga xam ne yow da nga sëy ak ñoom ñii mëntuñu mëntuñu gérer dara si dëkk bi Li baaxoo taxal taxal ko Sénégal actuellement Macky Sall li mu def li mu def moom la fi gars def naa problème bi c'est pas un problème de Macky Sall hein il faut tamit ñu nangu tamit suñu ay erreur de sama gars yi bu ñu jël lépp jiñ ko biiru biiru maa fi deful lépp de lan moo am Sénégal fii dama ko xool si ñëpp ah si tout le monde euh, jigéen népotisme ak bëgg nee xalaatee Iba Der Thiam loolu defoon Sénégal ba mu nekk ministre de l' enseignement supérieur ministre de l' éducation et euh, de l'enseignement supérieur Iba Der moo fi njëkk jël embauché tous les imams ak sëriñ yi waa kër sëriñ yi embauché leen ñëpp dafa leen salaire kenn kenn mu si jàngal ñu yoon seen ay jumaa ñi ñu yoon seen ay kër toog mais ils avaient un salaire dans la fonction publique chaque mois Iba Der Thiam moo fi yoon pour neexal nitu diine yi fi xam fa la bokkoon du ma tudd fa la bokkoon sax di ci wax ndax mën na yee sax fitna donc euh, maa ngi dégg temps yi euh, gars yi instant à la poste comme partout hein, Cheikh Kanté qu'est-ce qu'il a fait au port sireja, là lan la def à la poste euh, avant Siré Dia Mamadou Thior bi nekkoon DG poste là la def avec waa waa dëkkam mais fii dafa mel c'est un bien grâce, bi xam ne moo nekkoon sax des des postes hein, moo ko doon gérer ma ne le renouveau daf may jaaxal qu'est-ce qu'il a fait avec la poste donc fii dafa am benn genre mal bi nga xam ne kenn ku nekk fooy jiite mënuñu le bien public ak le privé c'est li nga mom ak li dëkk bi mom gaay mënu ko jaawatlé gaay ku ñu tek ben poste mu ngi xalaat nu mu tegee ay mbokam tek fo wa dëkkam donc Siradia waa wa la jël leen embaucher et c'est très normal c'est c'est quelque chose de sénégalais Macky Sall ay mbokam la jël ak famiyam li jitt na fi ñëpp ñoom ntar sax euh gisee mu jën gisee ala la qu'est-ce qu'il avait fait ay mbokam la jël mbokam yëpp mu jën gisee mo def lu insulte ala la banque centrale la de buy gérer suñu monnaie mom lañu def secrétaire général de la banque centrale mu embauché ba embauché nga xamné déggu ñu France manam jang jànguñu tubaab donc mu jël leen embauché leen directement comme agent de recrutement local à la banque centrale dañoo mujjee banque centrale mu mujjee dem fay ji dem fay ñooñu euh, centre culturel français pour ñu former agent yooyu pour ñu xew dégg tout français donc c'est pas le seul hein au coude Cheikh Omar Anne di nga ñala ñet ñi ñoom su fi Macky Sall mu ñu baña nek nekk lu may kaso mu Cheikh Omar Anne Cheikh Kanté ak Siré Dia c' est de grands voleurs ay sàcc lañu donc euh, dafa mel ni c' est mal bi nga xam ne dafa yàgg Sénégal avant Macky Sall loolu ñu ci war a wax na ñu ci war a waslu ak suñu àqulaay taala ñun sénégalais yi pourquoi suñu tegee ci benn post bi nga xam ne poste bi état Sénégal moo ñu fa fa soxla lu tax ñu war fa jàpp ndi suñu moomeel la war fa embauché suñu ay rakk suñu ay soxna suñu ay cousin suñu ay xarit sa waa koñ sa dëkk lii nii c' est un mal sénégalais bi nga xam ne jiit na Macky Sall war nañ ci xaas suñu jikko nag ci côté bobu wax deug yalla war nañ ci xaas suñu bopp donc Thierno Souleymane Baal dafa doon tere loolu dans sa révolution dafa bind lool donc ñaarel ba nga naa leen la réduction des comptes moom daf ko daf si amoon taxawaay bu am solo parce que bu leen fàttali la révolution Torodo euh, ak li mu ànd loon Torodo ñu meloon fofu au niveau du Fouta donc bi nga xamé euh, pour rappeler un peu l'histoire euh, parenthèse encore si parenthèse rek parce que sànq dafa am benn xarit ma koy par rapport au damel il euh, sax euh, Sobel dama wax il faut ñu xam ne euh, dafa am am histoire ah ndaxte moom moo moom moo si en tout cas lu wax koy fragmenté question ma message ma le Damel le mot Damel jiitu le Kayor royaume donc loolu hein. il m'a posé une question par rapport au Damel du Kayor quel eh, le titre que porte le quand le damel est né ba kayor nekké kayor non le kayor avant bi nek royaume eh, laman la won parce que le jolof était un empire bi xamé eh, ñi fa nekkoy province yëpp ay laman lañu won le laman du du du kayor le laman du bawol ñambour yëpp ay laman la won c'est à dire que c'était des provinces qui dépendaient du bourba ñu wax le bourba n'est-ce pas légui nak au kayor le laman qui était là-bas qui xam mo nekkon représentant du bourba dans le Kayor kooku il s'appelait déjà Damel avant Kayor di nekk royaume bu autonome lii euh, ñoom Kadamusto déjà en 1450 boobu la Kayor c'était pas encore émancipé donc bin na loolu si ay mémoire am loolu tax ñu ko xel ma ko wax may fatali fofu si ko si wàllu googu rek ne euh, Damel bu ñuy wax Déthié Déthié Foundiougu Fall waaw ah, Déthié Foundiougu Fall kooku may papa yu Amari Nourel Sobel kooku bu muy nek Damel mom, donc euh, mom fekkee na ñenti bourba. ba loolu taarix lii taarix moo ko moo ko retenir donc ñeenti buur ba nekk buur ba ci kanam moom mu des nekk damel donc Biram Koura Gane Ndiaye moo njëkk nekk buur ba jamono bi nga xam ne euh, Déthié Foundiougu moo nekkoon damelu Kayoor mu jóge Bokar Biiga Sangule Ndiaye daal di yéeg Bokar Biiga dem euh, Biram Njéemi Kumba Ndiaye bu mag daal di ñëw toog kooku nag ba mu fa jógee nag lelle fuli fak Ndiaye moo mujjee toog donc lelle fuli fak bi moom ñi jàng primaire sax xam naa jàngal histoire bi donc lelle fuli fak moom wax dëgg yàlla euh, macha allah donc histoire am ak euh, Koli Tengala baax ba muy raak war a libéré gars yi donc lelle fuli fak bañ koy dóor ndax moom it euh, frère am ca Fouta lii moom parenthèse bu ndaw kese la so Ngoore Sobel Fall nga xam ne moom moom princesse la woon ndax papaam buur la woon donc moom waa Bawol la te bu ñu fàttali moom tamit jarbaat la woon ci teeñ. ci teen bi xam suñu waxee yoxee on parle de teen donc ñoxor kulli gi daan jaay donc moom moo nekkoon jarbaatam donc kooku mooy yaayu amari bi nga xam ne ah mu war a daanal ji après fële gaañ yi donc amari moo a xeex bu baax ak lelle fuli fakk euh, ginnaaw ay ati at yi xam ne dafa bañ a fay lempo ba ni mu ko war a dumoyee ba gars yi jaare fa mën a moom seen bopp la Kayoor daal di nag un royaume indépendant lu tax may wax ci lii Kayoor dafa am dafa may soxal léegi-léegi ci waxtaan moo war a waxtaan ndax dinaa jël Kayoor en exemple par rapport nekkoon Kayoor donc Xaalima euh, Jaxate kalla laa bëgg waxtaane ak taxawaay bu mu amoon devant le damel et loolu dafa war a inspiré suñu sëriñ yi tey jii ndax man sëriñ yi tey live bi tey jii wax dëgg yàlla pour sëriñ yi la n'est-ce pas sëriñ daal wax dëgg yàlla tey moom foog ñu dimbali leen ndax suñu sëriñ yi fii ñoo am problème donc euh, Thierno Souleymane Baal kon taxawal di parenthèse kese la woon pour répondre à la question sama am ay questions yu may recevoir des par rapport donc euh, waaw ñu siy waxtaan li ci laajante biir donc Thierno Souleymane Baal kon déjà il mo porté la révolution il est sorti de l'école de Pirman qui est wax légui université Pire la mais ba mu porté la révolution il a refusé de me diriger comme il mo dirigé woon xeex bi il bu ñewon jël le poste d'allemand mi président day melni dit kon lu taxone mu doon xeex di c'était seulement pour être un président et il ne voulait pas être président il a refusé donc espérant bëggoon ko ne dundam donc li modèle de vertu qui modèle bu extraordinaire bi xam ko a suñu ay doom légui nak euh, parenthèse bu ndaw tax man ci Souleymane Ball dama gis tey euh, communiqué wu euh, association des imams du Sénégal donc ils ont nié les faits ne amul benn tëgg dam lañ koy nangul nag wax dëgg yàlla ñu koy nangul donte le président actuel le président de l'association des imams actuellement ñu bëri ñoo jàpp ni il est beaucoup plus pro Macky que taxaw waxal imam yi wax dëgg yàlla ndaxte il est membre du HCCT ñu jox ko 4-4 mu am salaire bu duuf te wax dëgg yàlla un imam pour être libre am liberté dafa am solo nga bañ a am benn dépendance par rapport à l' état pour mën a être libre loolu naa si ñëw léegi waaye li am solo mooy euh, fii bëgg naa fi andi benn benn benn sew-sew bala ma gis ñu bëri di xas naan ani imam nekkoon di wax ci bàkka bàkka bàkka donc euh, ali imam bi noonu wax ali imam nangam nangam imam bi nangam nangam euh, non attention attention kaawu Idrissa sek ci bàkka makka ak kaawu inauguration mosquée Thierno Souleymane Baal duñu benn il faut tam ñu nangu loolu tam wax dëgg yàlla il faut tam ñu bañ a ñu bañ a nekk naa naafiq dama ne d' abord avant dara imam dafa war di décrier ak di kaas lépp li nga xam ne méngoowul ak diine war na cee wax mënul wax lépp nag ndax mënta wax lépp waaye lu mu gis te teewlu ko ak lu mu seetlu ak lu mu xam war na cee wax léegi pour le cas euh, bàkk màkk bàkk moom imam dañ ci waroon wax c'est obligatoire lu tax dañ ci war a wax obligatoire parce que c'était flou nest dafa fulóot parce que euh, Idriss Seck dans son discours man je merewu Idriss Seck dans son discours te condamné wu ma ko waxuma ni yéeféer loolu tamit képp ko wax tamit d' accord maak moom maa ngi fàttaliku si loolu man defoon naa si benn live di attaqué sax Sidy Lamine yàlla na yàlla yokk leeram donc waruñu nekk yéeféerloo ak loolu c' c'est pas normal waaye nag euh, lu mu wax mën na prêter à confusion ba le musulman simple bi nga amul xam-xam jàpp ne ah kon kay màq bi muy jublu waruma ko jublu ndax fi du vrai màq bi màq bi mu ngi fenen confusion lu ñu wara bañ ci biir xelu julit ni motax ñu wara def un démenti et il l'avait fait et j'avais applaudi l'ensemble des imams avec des imams ñu abdou Aziz Kébé fi ñëpp waxoon ni machallah allah et wax bi dafa amone solo le cadre de la mosquée de cheikh Souleymane ball duggu ñu ci biir jumaa ji tëgg fa c'était au rond-point man gis na vidéo yi c'était au rond-point gaay teug tëgg nañ nag pooj nañu te waxon naa ni nag loolu problème bi ñaari mbir la suñu kilifa diine ño ñoo fi war a taxaw kilifa diine yu ñak jom ño fi gëna bëri fi Sénégal ñaareel ba jullit ñi lañu ñu yarul deug dëgg ci yarul islam ndax jut bu ñu yar si réseau islam di ko ñu inauguré juma kaay tëgg moom moo war a njëkk ne juma ma dama war a julli ji loolu du ma tëgg donc ñaari problème yi moom mun ñu ko askanee Macky Sall donte nag au fond sax waaye yéen au fond yéen juma ji juma Macky Sall juma Macky Sall Macky Sall sax na faa tëgg tama juma Macky Sall moom ndax alxuraan dafa naan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan li moom surtout jinn yàlla dafa daal jumaa yi daal juma yi yàlla lañ ko taxawal waaye man fii jamono bii jumaa yi ay jumaa Macky Sall fi gis ay jumaa yi ñu peinture beige marron laa gis si jamono bii di donc jumaa Macky Sall Macky Sall ñeme na faa lëmbal sax su ko neexee donc man moom aw ma si <laughs> problème ci wàllu googu mais de grâce nag bu ñu bu ñu def confusion bëgg méngale inauguration bi ak bàkk màkk sincèrement du benn donte nag man je le condamne avec la dernière énergie condamné naa ko ba fa condamnation yem ndax dëgg yàlla wax ndax jubul yoonul leerul ñëpp tamit condamné nañ ko tamit te condamnation yi mën a yem mais lii du problème condamnation li problème mu julit ñun julit ñi la mais ñun julit julit naka lañ ko mën a fayee ne ko kaay tëgg fii mu dem di fa tëgg saa la ñuy wax ne dëgg nag ah ah war jar na bàyyi xel de jar naa bàyyi xel léegi nag euh, wallahi Cheikh Abdoulaye Keba Mbaye son discours la discours inaugural am boobu ci université ci l'éthique man jàpp naa ne war nañ ko jël sax fii di ko ci làq yëpp di ko joxe di ko jàngal gars yi ndax gars yi ni comprendre lu léegi nag pour revenir à suñu kilifa diine yi kilifa diine yi ñu si bëri da leen anesthésie ñii xaalis lañ leen jox anesthésie leen ñii euh, man maa ngi doon laaj ndax sabar bi ci biir jàkka ji la wala déedéet du woon si biir jàkka ji de donc si rompoint bi la ci koñu jàkka ji nag waaye si angle jàkka ji la ci buntu ak si buntu jàkka ji donc euh, mbir la daal en tout cas daal. li fa am yëpp daal lu ñaaw la rafetul te war nañu yóbbu nañu defal benn introspection ñu xoolaat suñu bopp ñu ne ñun lu ñuy woote si jullit ndax wax dëgg yàlla jullit nag dafa am li nga xam ne moomu ko dafa am li nga xam ne sax ñu koy waxtaanee donc kaawu jumaa ji moom pourquoi gars yu bari génn ñu condamné parce que y a pas de confusion ñëpp xam nañu tëgg fecc dafa aram ñëpp xam nañ ko bu doon dafa am confusion ay ah attention ñu wax benn affaire ne ah léegi alxuraan bi kat ah nag te bii doon alxuraan dëgg bi am na benn alxuraan dëgg bu ñu làkk feneen dañoo war a jukk wax ndax loolu confusion la n'est-ce pas confusion la il faut tamni baye xel li xamé dafa am confusion ak li xamé xam ñu naan fal amru bayin fal amru bayin ni xamé dal ah fala iskal dafa am li xamé dal dafa leer nañ ni lolu amul werante teug ji dafa amul werante fecc gi amul werante dafa araam légui nak man man nak il faut ñu comprendre l'islam dañoo yàgg xex l'islam ci biir Sénégal xex l'islam Sénégal du tay jii la commencé buñu jappan tay la commencé yàgg na bu mu commencé kii n'est-ce pas donc euh, il faut ñu xam ne une bandole ils mi mis jërëjëf Macky Sall waaw si si bandole man fatu lañ ko envoyé ma ko et j'ai eu mal parce que jumaa ji kon jumaa Macky Sall la Seck Abdoulaye il faut ñu xam ne jumaa ji jumaa Macky Sall la man romb naa même sur route man je voyage beaucoup à l'intérieur du pays vers Kaolack ak vers beaucoup de pays mais man je vois des jum des mosquées qu'on a ni peinture ko en marron beige des des jumaa yi xam ne dañuy dugg jullee pare mais di wax ci président de la République di wax ci Macky Sall donc il y a problème il y a problème dans ce pays te problème lu ko waroon régler mooy l'élite religieuse maanaam kilifa diine yi ñan la actuellement mais loolu daf si flou man xaw ma instant kilifa diine Sénégal yi amin xam naa kilifa tarixa Sénégal yi xam naa leen tarixa bu nekk xam naa ko mooy kilifam te xam naa ne tarixa yooyu noonu kenn ku ci wax dara ci ki ko fondé wala ki ko sancoon gars yi lañu jël ay yeq dal sa kaw gis naa fi nu gars yi def ak yenn gars yu bëri ñi nga xam ne dañoo wax benn petit fils sax d'un sëriñ la ñu waxal donc euh, c'est que tout imam devait fêtir. Et manifeste que la plupart des religions sont complaisantes mais Matala c'est totalement vrai même alentour l'entour set am mais le problème majeur mooy problème mu diine ñan ñooy kilifa dîner ici fii Sénégal une question de pour rappel je toute tuuti histoire l'histoire histoire la femme solo ci lépp ba tubaab bi ñëwee Sénégal lañ njëkkoon identifier ah le problème le problème bu ñu nar a am au Sénégal mooy diine l'islam di wax ni yàgg na de dinaa wax naa si ñëw nag ba léegi wane Macky ban rôle lay joué si affaiblir islam fii au Sénégal ndax si ay rôlam la bokk rôle li ñu ko jox moom la bokk donc et c'est pas le seul c'est pas le seul Abdoulaye avait ce rôle ce rôle là ñu bëree koy Abdou Diouf avait ce rôle rôle boobu attention je parle de la loge de l'étoile l'étoile loge de l'étoile mu ngi biir palais de la république du Sénégal seetlu ngeen ni saa ñu falee un président dañ koy takkal ay genre chaîne yi xam ne mooy chaîne véritable maître yi sooy demee dans su ko xam un peu la maçonnerie bu si xam dara ñi waaye ni le président mooy moom la ñu élevé au au grand rôle de maître moom mooy le maître euh, de cet ordre la lu ñu wax l'ordre parce que ordre dafa am fu mu jógee dafa am cosaan l'ordre en tout cas de l'étoile bu nekk biir palais ordre boobu bu restreint la qui dépend de l'étoile occidentale Dakar naa si ñëw léegi incha allah donc il y a un rôle secret Le président yi fi Senghor en premier Douf en second Abdoulaye Wade en troisième Macky en quatrième position il y a un rôle secret bu les a jox à jouer contre l'islam au Sénégal l'islam au Sénégal n'a avant nous c'est ces farces d'indépendance là parce que ba léegi pas ñu indépendance avant nous koy ça sax bi identifier comme un ennemi à abattre c'est l'islam qui dérange et on va s'y mettre nag euh, ci zaay ci baati donc fi may tàmbalee mooy suis bi bu ku yées nga xam ne bon kooku nga xam Sénégal dañ koy màggal Sénégal dañuy MAGAL, ndax ñun dañoo jàpp ne kilifa malgré lu ñaaw lu mu def si dëkk bi yëpp ak lu bon lu fi def yëpp wax fi Sénégal dañ koy ko fi école tout ko fi koñ tuddee ko fi rue tuddee ko fi pont tuddee ko fi on rend honneur à Faidherbe et était un lâche qui mérite aucune honneur au Sénégal en tout cas man je bokk na si ñuy gëm ni ba amul droit am fi am fi am fi statut ni am fi pont ni am fi rue ni am fi école ndax dafa bokk si ñak jom ci biir réew réew mi nga xamné ne ñu ñëw troxal ko ci ay tubap ñepp ñu ñëw ko fayda ñepp ñu ñëw ko daf leen magal leen leen il est inconcevable à Paris nga fay gis une rue qui porte le nom de Hitler français pas wuñu ko D'après le peuple français va se lever n'est-ce pas va se lever donc quelqu'un bu bu sonal benn va mais xeet bi ko donc le bu gouverneur un an après sa euh, avec après sa nomination dafa ubbi moom jihad bu clair moom la contre Maraboui, contre sëriñ n'est-ce pas donc nous mu faire Nous dafa leer par force soit da ngeen rejoindre la cause coloniale muy benn soit vous êtes vous allez subir ça, mais foudre naa leen duma li wax ni c'était en 1855 na si ñëw étape par étape premier point bu bu bu le 22 juin 1857 arrêté le jël gouverneur bu obligé képp ki xamé xam ne alcorane nga képp wax la wax dé képp ki xamé xam ne alcorane la mu jël arrêté pour obliger le, n'est-ce pas obliger le ne la euh, da sa taalibe yi yi yi sa yu am 12 ans ñëpp ñu am 12 ans da nga sa ma école française ils ont compris que soo bëggee def dara ci ay investir école l'islam pour mu diffuser au Sénégal c'est à travers les universités islamiques à travers les commerçants arabes yu doon au Sénégal ñaar yi rien gën la diffusion les français l'ont vu nga une école laïque qui va enseigner des choses euh, à l'encontre de la religion et des traditions mais tamit au lieu commerçants ils vont envoyer des entreprises françaises Ils war a ñëw naa si ñëw léegi parallélisme donc 22 juin laa nekkoon kon léegi obligation la sëñ bu sëñ daara bu nekk mu yónnee xale bu am fukki at ak ñaar bu ne mu andi ko ci école tubaab bi loolu mooy premier acte bu feder ba teg second acte am le premier octobre 1857 mu daal benn arrêté mu ne nag léegi sëriñ yu am droit man ñaata sëriñ ñoo la a jàngal alxuraan ndaxte dafa amoon ay sëriñ yu bëri fi nekkoon donc il y avait plus de 40 sëriñ yu doon jàngal alxuraan en tout cas déjà dans la région du Waalo kese si Waalo bi kese waxuma yeneen dëkk yi ndax boobu euh, il n'avait pas encore soumis l'ensemble du territoire sénégalais en 1857 comme instant wax deug yalla euh, Lat ah. y avait des résistants un peu partout dans le dans le dans le Kayor euh, dans le Bawol dans le Nyambour, un peu dans le Djolof, Djolof, on s'est soumis très tôt donc dans le Djander, dans le Nyan, dans le Sine le Saloum ils étaient pas encore soumis donc il y avait une guerre le de la tambalé. chez les Haalpulaar il y avait plus de 40 sëriñ sëriñ yëpp yi nga xamee xaw na leen yàpp rek sëriñ yi amuñu mbooloo bu doy wala su leen dóoree kenn di wax dara dafa nangu dafa daf leen forcé tëj seen ay daara forcé tëj daara de gars yi war ñu jàng alxuraan ndax alxuraan boobu ça rend ça les rend fou ça les rend fort li wax ni ay moom la ni moomu fédère bi laay utilisé nii donc mu tëj daara yu bëri ñu dafay donné autorisation que vingt trois que vingt trois euh, sëñ daara naa ñëwaat léegi su benn place daara yi ñan la ak lu tax ñu jox leen ak collaboration bu sëñ daara yooyu commencé woon avec l'Occident li wax ni moo tax sëriñ yi tey jii naa ñëw sëriñ léegi sëriñ yi tey ñu xam ne lépp dëgg la n'est-ce pas donc euh, ci arrêté boobu may wax ni mooy arrêté wu premier octobre 1857 bi yemul ci euh, interdire nombre indi restreindre nombre daara mais def si restreindre laal tamit l'effectif c'est-à-dire que benn daara alxuraan amatul woon droit am lu ëpp deux cent cinquante euh, taalibe deux cent yoo xam ne ay tilmis ñëw jàng si n'est-ce pas donc euh, ñi fa mag nag mooy li ma waxoon cinq mooy premier décret bi bu douze ñi fa mag nag dañoo am obligation ñëw leen cours du soir pour ñu jàng école tubaab maanaam jàng histoire tubaab jàng culture tubaab jàng tradition tubaab pour ñu mën a sëbe ak saxal le complexe du tubaab seen biir bopp yi ndax ku la jàngal culture am jàngale histoire am jàngal la ay homme de lettres am la ay savant il crée un complexe que tu le saches ou pas que tu le veuilles ou pas muy crée un complexe sa biir bi nga xam ne wax dëgg yàlla di nga xaw a ndaw ci kooku donc euh, effort yooyu nag Faidherbe bu defoon ci déjà si wàllu dîner, parce que avez compris que dîner, c'est là où le bas blesse dafa échouer, n'est-ce pas dafa échouer. en 1870 Federbe bu jëlaat arrêté obligé à légui obligé ne léegi euh, euh autorisation préalable préalable pour mën a c'était en 1870 n'est-ce pas ci même at Bob, di l'administration coloniale avait interdit toute importation de livres alcorane ak livre les yi nga de fay dafay jàngale essence de l'islam parce que l'islam dafa am vision Mais l'islam dafa une vision politique femme une vision économique femme une dimension sociale et culturelle l'islam c'est un tout complet il savait que l'islam a son modèle judiciaire un musulman averti bu ñu jàngal islam dans ko charia du bëgg ñu àttee ko àtte bi xam ay nit un musulman bu ñu jàngal un système politique bi xam ne lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tëral ak arba ñu doon doxalee seen seen seen seen seen dëkk kooku du nangu ñu koy gérer si benn système bu uteeg système boobu ndax le musulman est d'abord un musulman il se réfère à yon Yàlla à sallallahu alayhi wasallam atiwullaha wa atiwu rasul n'est-ce pas donc euh, Mbiri, donc Mbiri, mbir mu là. la n'est-ce pas donc ñu interdire livre aqida yëpp yuy laal ci wàllu fiqh yu wax waxu jihaad yu wax waxu modèle politique yu wax waxu système judiciaire charia euh, topp diine dañoo interdire importation dañ ko tëj tout livre bi mu dugg dañ ko doon dañ ko doon occulter parce qu'on avait créé un bureau un bureau bi nga xam ne ah, euh, bureau boobu il était logé au niveau du ministère de l'intérieur donc moo doon contrôler lépp luy jënd maanaam jëndub livre bu nga en langue arabe la donc bu dee dafa xaw a am ay propos yu choquant wala dafay xaw a yeete wala dafay stimuler xelu gaañ directement on le confisque on l' interdit euh, d' entrée et de circulation dans le territoire parce que la colonie moomeelu tubaab bi la woon donc nga gis ni kon ci 1871 année bu ci topp euh, tous les lettrés maanaam kàngam yëpp yi xam ne dañoo jàngoon jàng arabe jàng euh, science parce que la géologie l'arithmétique la physique l'astronomie euh, la philosophie lii yëpp c'était des sciences yoo xam ne ko on n'a pas attendu l'université tubaab pour jàng sincèrement il l'avait appris mais en langue arabe n'est-ce pas rappelez-vous euh, maa ngi wax sànq école Pire ak révolution bu mu teg ak ni mu ko tegee ak xel buñ ko tegee stratégie buñ ko lalee ah c'était pas évident c'est pas évident benn poignée doomu aadama yu ndaw mën a def lu n'est-ce pas euh, Arabie année le gouverneur a trouvé que nous ñu jàngee en langue arabe il les a il les a déclarés illettrés n'est-ce pas illettrés parce que euh, un lettré intellectuel mooy quelqu'un bi xamné euh ne moo lire ak bind la langue française donc élection 1871 c'est ñoo waxoon ah, euh, euh illettré képp ki nga xam arab nga jàng lii nii dafa topp gars yi ba tey de ndax ba instant bii képp ku jàng en arabe man xam naa ñi nga xam ne ñoo dem université ay université ils ont appris l'agronomie ils l'ont appris en arabe ils ont fait là-bas bac plus 5 ay ingénieur agronome lañ mais en langue arabe bañ ñibbisee kenn nangul li nga ay lecteurs lañ dañuy wax ni kii arabisant la arabisant ça veut rien dire des gens sont allés apprendre le droit parce que fiqh le droit mooy le droit kulliyatul fiqh c'est la faculté de droit ils sont allés dans des facultés de droit à l'université, ils ont appris le droit, ils sont sortis avec des maîtrises, gagnés l'Arabisan. Ils sont allés dans des euh, facultés de lettres, des adeptes, adeptes la littérature. Ils ont fait la littérature, Django carrément ba def doctorat ñibbisi gars yi ne donc ba ce tous ceux qui apprennent la langue arabe dans la république dans la république c'est ñu gisee est illettré pourtant quand dem jàng en Chine jàng la littérature wala nga jàng l'agronomie wala la médecine bon, ñëwee qui intellectuel pourtant tu l'as appris en chinois pourquoi ko en anglais day qui intellectuel pourquoi ko en français moom ah kooku moom macha allah kooku intellectuel bi mag a donc il wax ce barrage là qu'on a créé te lii dafa 1871 la naa FM donc en 1893 on est allé encore beaucoup plus loin le gouverneur a décidé que. Euh, benn daara alxuraan du ubbi tànk nanguwul ay inspecteurs yoo xam ne français ñoo yónni pour ñu inspecter xool programme bi xool la nga fas yéene jàngale ba pare nga wax leen mu leer nañ ba pare nga wane locaux yi nga fas yéene ubbi ay registre nag leen jox ñun ñëpp turu ñuy jàng si ak la ñu jàng si genre cahier de texte rek la donc lii c'était un contrôle direct bu ñu bëggoon am sur l'enseignement islamique parce que xamoon nañ lii sera une menace par rapport à ce qu'on veut faire maanaam bëggoon doxal dans ce la république ah islam amul fa place yàgg naa ko wax de l'islam amul place dans la république te c'est normal ndax la république elle est maçonnique bu leen fàtte ne le mot république république moo bi si boobu képp koo dégg en Europe mu la su un républicain républicain dafa am muy tekki di on appelle républicain quelqu'un bi nga xam ne qui n'est pas attaché aux valeurs culturelles religieuses traditionnelles ñett yëpp tënku ko ne man diine tënku ma aada tënku ma cosaan tënku ma li Attention, attention. Vous voyez, aux États-Unis, quand on va dire que qui c'est un républicain, c'est que bien aada ciosan diiné intéressé wuma ak bitim réew intéressé wuma américain seen bien que c'est ñoo ma intéressé Donald Trump est un républicain donc loolu mooy républicain man maslaa rafetal faalewuma ko républicain lay tekki xam leen nag seen président yéen muy Macky Sall ba muy créé parti am alliance républicain la ko la alliance pour la république moom leen c'est un on appelle républicains en France tous ceux qui sont maçonniques. Tous ceux qui sont dans des loges maçonniques, les des républicains. Payon, euh, François il est vraiment un coup la wax dëgg yàlla ak ñeen Talmer nous sommes Condorcet nous euh, may wax Montesquieu nous sont euh, déclarés républicains donc c'est le président Macky Sall un républicain donc loolu non no comment n'est-ce pas donc ça a continué ça a continué euh, Macky ki ko créé muy Macky Sall dama ne mbir mu doy la loolu naa si ñëw léegi par rapport ak histoire du palais ak euh, maçonnerie nu muy doxal ci Sénégal contre suñu diine yi te expression bii si jumaa ji muy seen soyaan ball expression si bu koy wane donc 1896 la moo xew L'administration dafa gën a coloniale dafa obligé 1896 c'est un an après la création de de l'AOF qu'on a créé en 1895 année boobu pour ñu xam Serigne Touba wala xam lu tax Serigne Touba ko donc le système bu mu doon te république parce que AOF la colonie euh, système ah dañ ko xeex donc pour ubbi kon daara en 1896 il fallait nga def benn test bi nga xam ne en arabe n'est-ce pas test nga war a def en arabe euh, administrateur colonial moo la koy defal pour xool la mooy sa niveau arabe ak lan nga fasiné jàngale pour après mu joxe kitusam ne la admis kii oui kii am na droit wala amul droit et puis nga defaale engagement ne chaque trois mois dinaa joxe liste ñi may jàngal ñan laay jàngal kana kan la lan la len jangal n'est-ce pas xam nga c'est un contrôle total n'est-ce pas euh, ñi dem en 1906 gouverneur fi nekkoon c'était Guy Camille général la won c'est un militaire lan la wax la décidé la décidé des choses des réformes graves bu ñu fàttali 1906 tamit dafa am histoire par rapport à la troisième république française ndax 1905 ma la loi de la laïcité en France 1905 donc un an après la laïcité moom xam ngeen sur les quarante articles l' article deux moo ci ëpp solo parce que la laïcité loi bi elle date de la de la wax loi bi sax le mot laïcité nekkul ci biir gars yi bëri xamuñu loolu maa ngi dégg fii nii ba di cëppi cëppi laïcité le mot laïcité nekkul ci biir loi boobu loi bi elle fait presque quarante article bi moo ci ëpp solo article deux bi lan la wax dafa ne la république jàpp leen baat baat bi. ne ne ne subventionne ne salarie ni n'aide la république n'aide ne subventionne ni ne salarie aucun culte aucun culte te la loi de laïcité laïcité moom dafa ne donc euh, sur article premier de la république du Sénégal elle est laïque démocratique et sociale point donc je vous laisse dans chercher les quand l'État euh, nomme des imams quand l'État du Sénégal qui est laïque euh, inaugure des mosquées et finance des mosquées euh, par rapport à la laïcité, qui est un principe dans, la, dans, dans, notre constitution et qui a été créé en France et qui veut que l'État ne subventionne, ne salarie, ni ne donne aucun, aucune aide au culte. Je vous laisse chercher l'erreur. N'est-ce pas Donc, euh, mu des leen dans le coran yi xale bu am entre 6 et 12 ans mënutul jàng alxuraan école école un entre six 12 ans kenn du fi après mais yi ci man les lois de Ferry 1881 1882 les lois Gobelé 1883 lii yëpp avec la troisième république ñoom Gambetta ñoom Léon Gambetta les acteurs carrément nous sommes en croisade contre Dieu ñu ñu donc les acteurs ce qu'on appelle l'école moderne ak pourquoi su école bi bëgguñu jàngal suñu histoire bëgguñu jàngal dëgg donc primo kon daara alxuraan yi am suñu droit jël ay xale entre six ba douze ans waaw <laughs> moo ramata waaw day compal de <laughs> l'état ne subventionne pas mais il compal <laughs> n'est-ce pas ñi teg si ne léegi daara alxuraan yi dañoo war a obligatoirement jàngale français

de l'administration coloniale. Donc, internaïque, euh, les médersa de Saint-Louis n'est-ce pas le combat contre les écoles coraniques a commencé avec la venue de la mission lañ ko n'est-ce pas donc euh, tubaab bi mangi ngi passer passé euh, imam alun Badara ou ndeysaan mais wax lu am solo n'est-ce pas wax lu am solo la di gars def yëpp ñoom la te wallahi azim ñoom la lutte ak xeex bi def yëpp contre kilifa diine yi fii Sénégal Gille Thiam Fatim Jaga Aysa El Hadj Umar Foutiyou Tall Maba Jaxu Maba Jaxu moom sama maam la Samori Touré Njuma Diat Mamadou Lamine Dramé El Hadj Abdoulaye Niass Abou Hamid Kane euh, Cheikh Amadou Bamba Limamou Laye Thiaw ma ne ñii ñëpp c'était répression ñi ay nitu daara lañu dañu yoron daara di jangale alquran di jangale diini ak xam-xamu l'islam ñi la tubaab bi ñoo di leen mate parce que bëggul woon seen jangale am solo il faut ñu bàyyi xel bu baax a baax loolu su ko bàyyi xel du baax naa cité nag kenn ki nga xam ne kooku moom mun ma cité def liggéey bu am solo bi ñoo yónni s'appelle Paul Marty bin na sur le mourid moom moo njëkk wax mouridisme il l'a qualifié wu man wara suma dégué ko né ne mouridisme daf may metti bëgguma gars yi di mouridisme da gay def di ndax mom il a expliqué le mouridisme li nga xamné lolou dafa ñaaw té lolou man nanguma lolou moy mooy daf ko jappé mbiru dof ay dof yu dajalo nga xamné ñom ak ay robot yam amna lu bëri ci ay nit yoo xam civilisé wuñu jànguñu il a peint les mourides d'une manière extraordinaire et ce Paul Marty a fait un travail extraordinaire dans ce qu'on appelle la République naa si donc donc waaw Seydina Limaamu kay man dem naa ba cellule la mu fële ci gore donc c'est Limaamu bañkat la woon ku gars yi war a xam la wax dëgg yàlla Limaamu n'était pas ñëwul n'a ay gars yi noppi rek non non non Limaamu macha allah donc Paul Marty boobu pour me joxe benn benn aperçu de sa biographie il a écrit le livre qui s'appelle Études sénégalaises n'est-ce pas donc Mm, euh, moom bindam yëpp ci sëriñ yi la ak ci islam ndax moom tubaab la naam mais il est né en Algérie il maîtrisait l'arabe d'une manière extraordinaire daf ko jàng ba pare jël alxuraan di ko gëstu jàng ko bu baax a baax donc les écoles maraboutiques au Sénégal la médersa de Saint-Louis moom moo ko bind n'est-ce pas la politique indigène du gouverneur général Ponty en Afrique occidentale française il l'a écrit n'est-ce pas euh, étude sur l'islam mour Cheikh Sidia moom moo le livre bon. livre euh, il a écrit en 1916 étude sur l'islam au Sénégal les personnes les doctrines et les institutions mu en 1917 l'émirat des Trarza mu ngi en 1919 les de la boucle du Niger mu en 1918 étude sur l'islam et les tribus du Soudan n'est-ce pas lii en 1920 et 1921 l'islam en Guinée, Fouta Diallon, li en 1921. La découverte des sources de la Gambie et du Sénégal, euh, dans cette histoire-là en 1921. Étude sur l'islam en Côte d'Ivoire, il a écrit ce livre-là en 1922. Après, vous voyez qu'on qui Étude sur l'islam au Dahomey, actuel. Euh, deux points, le bas Daomé, le haut Dahomey. Mouibinli en 1926. N'est-ce pas? Les la ngeen mën a lu wax mais qui il a écrit sur l'islam dans toutes les portions de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle, qu'on appelle aujourd'hui l'UMOA, moi l'ancien AOF, au Sénégal, au Mali, au, en Mauritanie, au Niger, en Guinée, en Côte d'Ivoire, euh, au Burkina. Il a étudié l'islam fofu, ba paré joxe ay notam jox ko au gouverneur français pour dire ay décision par rapport à cela. Pour Martinac, comprendre ce euh, qu'il a a et ak qu'il gestu.

mais George Hart li mu wax dafa am solo dañ ko war a bàyyi xel George Hart dafa wax ne ñoom li ñu bëgg def ci Sénégal ak ci yeneen dëkk yu dul Sénégal waaye Sénégal mooy seen baas ñoom li ñu bëgg def ci Sénégal du mën a am mukk fileeg tubaab yi nanguwuñu nangu xale yi ñi génn ci daara yi andi leen ko ci école am bi pour mën a def ci ñoom dëgg-dëgg amouru France ak volonté de vouloir servir la France mu ne daara yi ñooy su premier ennemi il faut ñu fagaagal seen seen daara yi. il faut seen yaru kër yi maanaam kër gi éducation bu ñu jox xalé sen seen kër yi dafay def ñu am fit dañuy diñ dañuy am ngor te dañuy am jom te li c'est c'est c'est contre euh, l'autorité coloniale bu fi nek pour ñu rendre leen mou pour pare rendre leen docile facile à manipuler il faut ñu dag sa cordon là au niveau de la famille il faut ñu nangu leen bañ leen a dans les Georges Hardy mu ngi koy expliquer clairement dans son ouvrage il wax ni le premier inspecteur général de l'enseignement donc pour dire que l'école a été le bras armé de cette volonté là à vouloir extraire des Sénégalais de leur culture de leur tradition et de leur religion Ici, une école la wara a jaar li dafa jar baay xel bu baax dama ngeen comprendre lool bu baax a baax Bala ñu évoluer il y a une volonté manifeste bi xam fi ba sa nek. l'AOF bi xam parce que l'AOF ñu avons ko créé maa 5 en 1895 moom mu ngi en 1958 avec la constitution de la 5 5e république moo génnee euh, moo dindi euh, l'AOF créé la communauté n'est-ce pas cette communauté là s'est migrée en 1962 créé l'UMOA ce qui va migrer en 1994 en l'UMOA waaye union bi jàppal ni maamam AOF et que les fondements réels de l'AOF ba léegi moo déterminé UMOA UMOA changé ça n'a pas changé. Hein. Rien n'a changé. Des noms ont changé, mais des pratiques et des mécanismes sont restés intacts. N'est-ce pas Donc, dans cette république-là, on avait compris que Djangali Dini a encore la volonté du colon. Et la volonté du colon aujourd'hui n'est plus représentée ni incarnée par un blanc qui est là à travers la colonie, mais représentée à travers des noirs qui ont la bénédiction

mais sooy xeex te l'ennemi l'ennemi n'est pas visible mais il est présent xex bob mo gën metti xex xeex actuellement n'est-ce pas donc on est sànq république ça est moi wax effectivement république mais républicain dans l'histoire de la maçonnerie en tout cas pour le Grand Orient la xam déjà daw ci 2018 bi il y a eu une grande il y a eu une formation de Grand Orient dafa créer euh, benn loge bu bess man loge d'étude loge d'étude loge mu ngi tudd république universelle la république universelle de tuddee boobu donc loge boobu conférence am maanaam première séance am ñu ngi ko def ci mois bi janvier bi nekk le 12 janvier passé la ñu def seen première réunion de loge ba def première réunion de loge bi dama ne euh, kilifa yu mag Sénégal fii wax dëgg yàlla amoon nañ ci xalaat ku mel ni Abdou Diouf bu Sénégal pourtant bokk na si nga xam ne dañ ko copte woo ko doxal ko ci mbir mi n'est-ce pas dañ ko ci woo. Abdou Diouf là, Sénégal ancien président Sénégal donc ils ont repris 39 mètres mais 39 mètres yooyu nous bëgg nous conduire de faire ce qu'on appelle la république universelle la république universelle l'idée de la le chevalier Ramsey à depuis l'année 1750, c'est le 18e siècle c'est un rêve des maçons Vous voyez, les maçons dafa trois choses c'est xam mooy seen dañuy xeex contre toutes les frontières toutes les frontières yu am si parce que ñoo bëgg tabax la république universelle àdduna bi yëpp nekk benn dëkk kese ñu koy gérer ñu wax la gouvernance l'œil unique maanaam dajaal benn bët bi naa si ñëwaat léegi benn bët bi moo war a doxal addu bi c'est une vision unique pour le monde entier ñoom ñu ciy dox deuxième bi ils doivent détruire la famille la famille nag détruire ko du yomb n'est-ce pas détruire la famille du yomb du yomb parce que euh, la famille base mooy base société la famille c'est la femme et l'homme avec l'enfant. Quand on parvient à mettre en compétition la femme et l'homme, au lieu de cette relation que complémentaire, une relation conflictuelle, opposition, relation de rivalité, là on a donné un sérieux coup à la famille. waaye buñ ci les lignes, dañuy émanciper xale bi pour du amener autorité parentale xale bi parents yar fuñ déjà mais pour nous autorité parentale là on a bousillé la famille Fofu nak la amé problème man par rapport ak jamono bi sir yu ma gis Sénégal sir yu ma gis Sénégal ma ngi gis ni fam ben chaîne mu Marodi TV chaîne bobu mu ngi doxal ay film yu bari fi Sénégal euh, Adja xaw ma Adja et sa mère xaw ma lan ak lan idol ak Pod et Marichou légui la maîtresse d'un homme marié bëgg commencé am gannaaw suba

li c'est des messages yi nga ñu koy à la jeunesse sénégalaise bu ñu fàttali suñu dëkk bi 66 de la population sont âgés de 0 à à à 25 ans n'est-ce pas donc euh, population bu ñu elle est très jeune elle est juvénile message yi ñu koy envoyé la maîtresse d'un homme marié lan lay tekki lan la war a def si xelu nit ñu ngi joué ay film yi nga xam ne Pod ay film yoo xam ngi wane ni carrément ëmbal kenn wala am jabar ba pare amaale doomu ëmbal dara nekku ci parce que ñu koy ñu ñu ngi def benn promotion wu loolu ce pas ñu ngi def euh, promotion wu loolu c'est la promotion qu'on de faire ñu ngi wane carrément que kii dafa ëmbal doom sa après mën doom kii dafa nokkee wala kii ëmbal kee kii yii la ñu wan a yii la ñu même bu dee am nañu jàpp ni on est de montrer euh, benn facette la société sénégalaise mais damay nekkul lépp la ñu war a wane sutura dafa am solo ci lépp dama ne lu bon war ñu ko di ko wane parce que soo ko wanee ku faible dina tenté def ko lu bon mosu fee jóge ñi ngay dégg jamono bi Sénégal yëpp mosu fee jóge nit yaa ngi doon njaaloo nit yaa ngi doon rey rey yëpp amoon na fi góor jigéen mais daf fi yàgg toit bi jóg fi àndi mais pourtant promotion bu ñu ko defal jamono bii di ko fësal di ko imposer gars yi moo tax ñenn ñu ko xawoon ragal sax commencé ko essayer ñii di ko gëstu les faiblards di ko jéem xam di jéem a xam loolu moy lan euh, yambar yi ko nekkoon la commencé ma sa duma ma làkk tuuti amna ay mbokk amna renfort dama ne lu bon ken war ko defal promotion et li ça interpelle ñun sénégalais ñun ñep mais les médias ñun ñoko mom pourquoi ben population bu ndaw jël en otage le peuple di woné ay image ak ay émissions yi xamé mais on a des émissions yi xamé sur mesure ah xaw ma ne yaa ngi seetlu émission Sénégal yi chaîne yëpp la sur TFM nak moy télé franc-maçon n'est-ce pas télé franc-maçon ah sama seul qui ngi C'est nag sëñ Ababacar télé franc-maçon la man mais les chaînes déjà débat mais ay journalistes yu ñàkk fayda ñoy animer suñu suñu débat yi c'est des débats très pauvres les gars ils di poser ay mbiru kii moo wax li Ils ont def qu'ils la gëna bëgg pousser Sénégalais aujourd'hui nous sommes à un mois des élections présidentielles nous sommes à un mois presque hein. tel lan 24 nous sommes un mois jour pour jour Quand fi un débat pour pour homme politique ci la bëgg defal Sénégal fi un programme projet une vision un plan fi aucun homme politique ñu ngi wax ku euh, vraiment nous bëgg ay idole mais ba si ay ay def ay sacrifice am ay nopp kee ki dafa nopp jabaru kii kii nopp jëkkëru kii euh, kii dafa ëmbal kee mais ay journalistes yoo xam ne yu important des gens yoo xam ne seen pas des journalistes man ay reporter sax la ñu ma dama jàpp ay reporter rek mais on les prend trop au sérieux dans ce pays fii ay reporter sax la gars yi jàpp ne ay kàngam lañu te vraiment ils sont très limités seen débat amul solo ay nit yu mel ni Tunkara la gars yi gën a màggal ci président donc Tunkara jàmbaar la Tunkara du jàmbaar Tunkara il ne fait que piétiner des gens yoo xam ne seen xel yi neexul mu invité leen leen ñàkkal fayda ay ñoom Birima c'est très imbécile là bu nekk fële ATFM di reewate moo fa toogal Macky parce que effectivement télé franc-maçon Macky daf si am wàll ndax patron seen patron muy booyu Macky il est obligé ànd ak Macky pour am yenn affaire et donc Birima à sa place foofu si émission bi hein, parce que Macky dafa bëgg ko fa teewal donc il faut que ñu am quelqu'un bi xam ne il est pro pouvoir donc les débats ça, sont biaisés dans ces médias là man dama ne quand tu laisses les chaînes sénégalaises sax nga bàyyi ko si tu te portes mieux

mais ñun en fin de compte lan la ñu bëgg ñun ay ay commérage ay wax yu amul solo ay yu bon xanaa loolu moo ñu tax a jóg mais on a un problème dans ce pays de on a un sérieux problème donc lii seen agenda ñoom bokk na si ñu jaar si média pour jéem a yàq suñu dëkk bi ci biir loolu nag média yi film yi ma bees yi ma gis film yi ma gis su bees yi film yi wax dëgg yàlla ñoo ñëw kese pour yàq si dëkk bi pour yàq suñu xale yi ay ñoom Petit Gallé lii agenda la bi xam man waxuma acteurs yi xam naa ne acteurs yi ma xool mere ma ne kii dafa iñaan noonu iñaanu ma soxalewu ma leen wax dëgg yàlla li ñuy def nii ñaanu ko yàlla def sama àdduna di joué ay film yi ñàkk fayda yi wax dëgg yàlla di euh, honoré wul ndaanaan ni ki da ngay produire quelque chose sa xel wala nga àndi xalaat wala nga participer si dëkk bi wala nga dem bàyyi tool waaye taxaw di dof doflu di incarner rôle yoo xam ne du sa rôle di incarner personnage yoo xam ne nekkul yow lii moom amul ngóor amul njàmbaar maa ngi gis ay dof nag nekk si internet bi naan wala enfin Sénégal léegi dina am industrie euh, industrie cinématographique comme Nigéria am na Nollywood euh, euh, sax Bollywood am na Inde Sénégal tam war na am Sillywood xaw ma Sollywood mais nii que des imbéciles njëkk dëkk bi bëri nay dof de bëri na ñu waaye di nag bëri na trop ñi nga xam ne seen xel yi dafa mel ni màccul de comprendre ñu agenda bu nekk dama ne acteurs yi je les en veux pas ñu si bëri dañoo bëgg siiw rek bëgg nekk ay stars su Sénégal yooyu nga xam ne ñoom ñëpp kenn du ci modèle soo leen xoolee si ñoom ay teint xeesalisé c'est des femmes xeesalisées des femmes yi xam ne benn benn langage bu ñu am sax langage bu incorrect la bu wayadi la dama ne euh, duñu si solin ci melokaan ci doxalin ci lépp ma ne kooku du image yu Sénégal du image Sénégal ce qu'on exporte du Sénégal c'est pas ça le Sénégal le Sénégal ay nit yu baax la c'est des gens c'est des combattants, c'est de grands religieux, c'est de très grands hommes, de très grands intellectuels. C'est ça le Sénégal. richesse boobu richesse culturelle boobu richesse boobu en valeur damay loolu ñu war a wane waaye pas ay série yi nga xam ne lépp lu bon lu gën a bon li nga mu ngi am en catimini mu ngi am si suuf a suuf ñu koy nëbb loolu ñu jël di ko jéem a joué di waaye ne lii tamit am na fi deen ko def ñu koy def ku ko def defoo lu garaaw njëkkee ko fi que c'est ça l'image que je perçois man am na bu leen tiit ko bëgg def defal ndax njëkkee ko fi tuddoo ko fi mujjee dama ne c'est pas ça le Sénégal le Sénégal lu rëy la on a des valeurs à transmettre à nos enfants et surtout à nos générations futures dama Sénégal fii média bi c'est c'est gravissime sooy daaw y a eu un scandale des scandales par rapport à des abus sexuels aux États-Unis des producteurs des cinéastes yu bëri on les a euh, porté plainte euh, Bill Cosby pas boobu euh, Bill Cosby

Il est su fekkee da nga nekk si bu normal wala yow nga normal mais il tympanise les gens di dof-doflu ci réew mi di reewantu ci biir réew mi moom bi violé mais c'est extrêmement grave am ñaari jabar violé non mais ce pays n'est pas sérieux c'est grave quoi c'est grave dëkk bi c'est grave wala ñu xool suñu bopp de dañu ñun dëkk bi dañu Il y a des guignols des crétins des cons des idiots et des imbéciles ñoo accaparé les médias di woy le président di wax yu ñàkk fayda duñ ñu jàngal dara lu bees duñ ñu wax lu ñuy jëriñ dañuy ñuy foowe di ñu infantiliser di ñu dugal si ay détails ay diw moo wax lii diw moo wax lii diw def na ko lii diw après la fayu gars yi bëgg ñu dugal dans les répliques personne personne te ñun on a des choses beaucoup plus intéressantes et des enjeux beaucoup plus graves mais ñu war régler il faut tamit voilà Babacar lii la. bu la yàggee wan lu ñaaw di la ko wan di la ko wan di la ko sotti di la ko sotti da nga dem ba lu ñaaw loolu ak lu bon loolu day mujj normal sa bët maam dañ la dañ la ñaawloo dañoo ñaawal sa gis-gis à travers des années nga xam ne la travailler si ñaawteef ak si lu bon dañ ko war a bañ te dañ ko war a xeex c'est pas normal maa ngi dégg temps yi benn communauté fii Sénégal te dee Tijaan sax yu bëgg organiser benn xadaratul jumaa place de l'obélisque vendredi prochain waa Medina Baye la peut être plus clair ndax wax dafay mat dafa dafay leer ñu ñuy wax ragaluñu ko n'est-ce pas je trouve ça aberrant je trouve ça honteux je trouve ça très petit sincèrement xalatul juma pour lan la pour jaamu yàlla la pour tudd yàlla la ponk la si tarixa tijaan bépp taalibe cheikh war na ko mu lazim chaque jour matin ak soir wasifa benn yoon par jour

ñoo doon njëkk bind lettre ñoom ñëpp def benn conférence benn référendum ñoom ñëpp benn benn je vais dire sax benn pétition dañoo bëgg ñu màbbal ñu obélisque bi d'abord parce que obélisque bi c'est un signe maçonnique obélisque bi c'est le signe ñuy wax du phallus phallus mooy mooy mooy mooy sexe góor ah c'est le pénis ma ci kàddu gi damay jàngale signe phallus boobu dafa am histoire ak Osiris Isis Set ak Némrod seen histoire la Némrod ak Sémiramis ak euh, ak euh, ak euh, comment dire ak tamouz tamouz donc l'histoire histoire bu yaatu bi xamé li ne lii franc-maçon sax dañ ci bind dëkk yëpp yi nga dañ fa ñëw andi fa andi fa seen doole waaye ne ñoom fii nous sommes bien portants nous sommes nous sommes assis dëkk yëpp dañ fa tabax benn obélisque dëkk yëpp Sénégal nag seen obélisque ñu ko paré 1963 Senghor dañu jaar 1963 donc le 4 avril lañ ko inauguré 4 avril comme 4 avril rek bi xamné moy suñu fausse indépendance comme 4 avril bi xam seen taxawal première loge fils Dakar muy état occidental Dakar donc 4 avril muy mom la magal. màggal euh, monument renaissance bu sax 4 avril la ko inauguré 2010 4 avril bobu lepp luy monument yu am solo yu dédié à la franc-maçonnerie dañ ko wara inaugurer jour de le 4 avril c'est un fait jam ñaajo bi pare leen wax naa ko fii naa ko waxaat dama ne jam nañ fa am benn édifice bi nga on va l'inaugurer un 4 avril ci magistère u Macky Sall donc lii moom ah astafurlah ma may seen Macky Sall sax may si jamono yi ñu nekk jamono PSE ndax Macky Sall dafa war a dem day dem donc euh, ñu comprendre ni ñoom waa Medina Baye ba dañoo jàpp ni élection yi di ñëw ko ah mun naa am niróo naag lu xaw a tàng parce que dégg naa seen imam imam na Baye bi Cheikh Cissé moom moo war a ñëw présider ko donc bu dee ñoo jàpp ne élection yi dafa nar a tàng wala dafa nar a tar ba ñoom looñu gisul. pour moi, il y a des manières beaucoup plus importantes que nous devons faire dans la place La Place obélisque, du khadara La Place obélisque, c'est un endroit dédié à Satan. foofu lañ ko loolu lañ ko war a raser suñu nous mooy nañu raser place de l'obélisque mais li ñu war a def ñoom du xadara dañu war a les parties prenantes pouvoir comme opposition jàmm du lu ñuy wax jàmm dañ koy dox dañu wax dëgg président ne ko eh parce que l'État, limon c'est ne ko le c'est l'État a le monopole de la violence la violence euh, euh, je vais dire la violence euh, normale hein? la violence euh, sérieuse et la violence bu ñu mayee mon moom monopole donc étant que État moo gën a mën a andi violence na gaa yi wax président bi pourquoi ñemewuñu wax dara président di ko raay président yow li nga def ken def ko fi yaa ñu tabaxal këru gan yaa ñu xawma lan yaa a may passeport jaraw laak président lii yi fi ñàkk jom la li tax sëriñ yi fii mun ñu wax dëgg te yàlla tax man c'est ça mon problème dans ce pays maa ngi wax sànq Thierno Souleymane Ball maa ngi tudd sànq sax euh, Déthié Déthié Déthié Ndiogou donc fële ca Damel Damelu Kayor tudd Amary Ngoye Sobel dafa kenn kii xam ne man dafa attiré sama attention mooy Xaalima Jaxate Kala kii moom war nañ ko jàngale suñu école yi de jàngal ñu ko suñu xale yi Xaalima Jaxate Kala c'était un très grand qadi. bat bi tout tudul khali sax c'est une déformation Qadi, la qadi yi c'est un juge musulman mais gars yi ko yàq naan xaali kala kala mooy dëkkam kala mo ngi fee c'est à quelque euh, yàggul soriwul noonu mu tëdd sax euh, soriwul comment dirais-je ni koy wooyee soriwul mexé n'est-ce pas soriwul mexe am ma ñu ko changé man changer bi sax dama ci d'accord lu ñuy dox di xadra ci ay terrain yi ñaan jamm xadra du pour ñaan jamm xadra du pour ñaan jamm xadra zikr la la ilaha illallah tuddu yalla parce que dañ ko signé ñoom ñoko ko ku jël wér ya ko signé dañ ko war def n'est-ce pas donc euh kala dekk la euh, xali ma jaxate kala mom sax turam deug deug musa musa tuddu tuddu tuddu tuddu xali donc kooku ba la Joor demee sax ci xeexu bataayu Looro la bataille de Looro ndax bataille bataille la Joor yi bataille yu am solo la bataayu Looro bataayu ngol-ngol euh, ngol-ngol bataille bu neex la donc bataille bu neexal bataille bu ma neex la ngol-ngol ndax il avait donné une benn défaite bu sanglante et sanglante aux Français mais à Looro la Joor avait perdu c'était après ba mu tuubee ba watu ba watu mabba Jaxu Ba moo ko moo ko tuublu woon mais Xaalima euh, Jaxate Ka la daf ko bind lettre daf ko bind benn poème il était très libre man c'était un modèle de liberté en tant qu'homme politique et religieux équidistant entre l'État et le peuple Xaalima Jaxate Ka la ñemewoon na dugg ci biir dëkk bi dox fu ko neex dox fu ko neex en tant que en tant que juge yéen seen juge yi nekk fii conseil constitutionnel pour ñu joxe résultat police mooy ñëw escorté leen pour ñu génn ñibbi police ak gendarmerie ñoo ni escorté ñi ay juge lañu ñi kon waxuñu dëgg ils n'ont pas le peuple avec eux xaw ma ndax xam nañ ko rek ils n'ont pas du tout le peuple avec eux mais Khali a dit la vérité à la Dior pourtant la Dior moo ko nommé étant damel moo ko nommé def ko le Khali de Kayor waaye il se gênait pas de lui dire la vérité crue sans neexal ko Khali war nañu war jeexal histoire bu baax a baax ses poèmes maa ngi ay poèmes yoo xam mais merveilleux équidistance liberté am et c'était pas un directeur de conscience fi sëriñ fi nekk fi yu bëri c'est des directeurs de conscience dañ la bëgg ilif ilif sa nekkin ilif sa xel waaw man sëñ sax nangu naa ilif sama xel dafay fekk yow sama xel soo ko ilifee nga nga jaarale ma fi nga xam ne su ma demee ak borom bi naa borom bi na ma gërëm mais yow nga bëgg ma jaarale say bëgg-bëgg bopp bëgg ilif sama xel yarul maanaam Mbadiène Diop ils ont changé de lieu changé lieu bi sax waru leen nañoo yem seen dëkk taalibe yi kenn ku nekk ci mu xaddam bi mu tàmba dem xadara na fa xadara ji na fa dem xadra ji ñoom la ñu jël position jël woote wax dëgg te yàlla tax ba bañoo joxe consigne de vote fa ñu war a jëkk tàmbalee bañoo joxe consigne de vote ñaar wax dëgg Macky Sall dañ ko wax dëgg ne ko bul sàcc waroo sàcc élection yi ne dina ñoo war a njëkk wax ne ko dañoo bëgg réew bi réew mi euh, réew mi apaisé en tant que réew mu apaisé nag pour mu apaisé yow sa ministre de l'intérieur bii change ko parce que kii dafa far sa partisan la Nous avons les jalons des élections apaisées élections apaisées c'est deux partis c'est le pouvoir l'opposition nous président dit opposition une opposition n'est-ce pas est waxal opposition France passeport États-Unis Macky Sall ay une américain qui jabaram citoyen américain la avion opposition kon ñun fii bëgguñ mu tàq mais suñu bañee mu tàq la ñuy wax dëgg ndax dëgg mooy andi jàmm mais pas taxaw da ngay ñaan ak wala nga taxaw jeex ay benn wax bu allusif wax ko opposition bi di railler la président yi fi naa féq la dagay ragal yàlla waaye ragal leen yàlla wax leen dëgg kurush ku leen di bëgg mu bëgg leen ku leen di bañ mu bañ leen ku leen xàq leen tu saa sama waxoon wala kaana mu ren mais appliquer leen jàngale yoon ci yàlla Muhammad bu dee yéen a fi teewal islam man j'ai peur que nag si nga suñ ni fi nekk man j'ai peur que nag wax dëgg yàlla teew ñu fi islam li kay c'est grave man tey laa gis les marrons du feu dama ko gis damaa tit ma xam ni Macky Sall c'est un vrai imbécile au vrai sens du mot nag yow ñu lay jiin dara pareeguñu nga commencé di defal di doxal liñ lay waxtaane mais lii c'est extrêmement grave mais Macky est-ce que ça va dans sa tête man dama ne Macky war ñu yem ci ci ci ci sanctionné ko ci élection yi war ñu yem sanctionné ko ak dàqu ko Macky Sall nii dañ ko war a jàpp après euh, duma ko ut ay kell yetu kel duma ko ba pare buñ ko tëj prison rëbës dafa yomb te warul dem rëbës comme dafa doon jooy dem sëñ baara di jooy naan moom tëj kaso dee moo ko gënal buñ ko yóbbu kaso ndax moom kaso bi baaxul si moom ndax bu ma ko waxoon dafa dem sëñ baara une heure deux heures du matin li wax ni Ababacar a ngi nii may dégg di fa jooy jooy yu yi nga xam ne ni Ablaye daf ko bëgg tëj te sëñ baara dafa intervention parce que moom bëggul ñu tëj ko dee sax moo ko gënal n'est-ce pas i man que wax Baara téléphone pour lui pour comme ça kon pas prison ça. na prison il prison ça. ko wutal cellule parc Il ci a golo yi ça. ko cellule vie comme ça hmm? parce que il a trahi tout un peuple il a il a trahi tout un peuple ba pare jël espoir un peuple n'est-ce pas vraiment espoir un peuple jël ko di ko dilapider jël les biens d'un peuple placer ko ci loxo tubaab bi mais c'est grave donc nañ xam ni par rapport ak lii parenthèse la par rapport li ma doon wax rek donc nitu diine yi nañ jël sa responsabilité pleinement donc nitu diine yi dañoo war a waxale yàlla te yàlla rek tax bu ñu nangu nekk ci ginnaaw kenn nañ nekk ci ginnaaw yàlla waxal leen yàlla paix nag jarul ay ñaan ak wax ju bëri ji la paix ku ko bëgg dañ koy dox di ko wax wax leen ak ñëpp te yàlla tax wax leen ak l'opposition wax leen ak le pouvoir instant yi c'est presque trop tard nag wax dëgg yàlla parce que élection apaisée l'élection apaisée déjà une demuñu si élection apaisée un nit yi jot seen carte il l'a fait exprès deux on a trois fichiers électoraux il l'a fait exprès parce qu'il avait planifié son vol trois mécanismes de vote que ce soit la Sénat que ce soit DAF que ce soit le euh, conseil constitutionnel que ce soit cour des comptes Ce sont des gens retraités les délais prolongent parce que c'est sont des gens qui sont experts en vol électoral Et ça, c'est dañoo que am expérience su qui bugg leen changé mu defal un contrat vous devez ñu retraité mel ni amul kenn ku compétent euh, ci biir dëkk pour remplacer nest ce pas mu teg leen fa donc euh, mu bloqué les foofu. 3 mu jël un partisan bi xamé HP la nek APR la nek def ko miss jox ko la charge des élections ko koy organiser 5 euh, mu mu mu lëmbee mu lëmbee réew mi ndaxte Serigne Seck ñepp ñu bëri la corrompre donc li yépp mom ba paré 6 mu jël choix wu di changer unilatéralement mom kessé muy changer unilatéralement les règles de vote les règles électorales sans consulter opposition xam ne ñoom la séqal loolu droit di ko changer donc il y' a beaucoup de choses qui ont été ko sincèrement il ak un vol électoral en marche et malheureusement devant lui cette opposition là n'a pas su lui faire face opposition ils ont perdu toutes les batailles devant Macky Sall la bataille les batailles juridiques les batailles politiques les batailles de com toutes les batailles sincèrement Macky Sall dóor il instant yi de demaguñu Donc, donc y' a un problème L'opposition, quand opposition extrêmement grave extrêmement grave doy na waar doy na euh, li yàlla xam doy na seulement nag nañu bàyyi xel benn affaire ni ko jàmm dañ koy dox wax ko n'est-ce pas dañ koy dox wax ko Macky bu ñu xoolee sondage réel bi fii Sénégal Macky Sall pour cent sa mëntu ko am ci élection laa de waaw 30 pour cent sa mënu ko am n'est-ce pas du dégg du gis dara defu ko tant que mu ngi yor la puissance publique du ma ko def du ma ko def du ma ko def ñett yoon la wax xam nga ni kooku di wax loolu kooku déjà am na lu mu nar te jàpp na ni nar loolu mu nar su changé li dafay yàq loolu yëpp te bëggul dara yàqal ko ko kii nag chaque jour ma wax ko du ay wax moo ko fi jële du ay carte carte électeur moo ko fiy jële monsieur mës na voté sans carte donc gëmul carte yi donc kii jaamarloo moo ko fiy jële te coow li mooy opposition bi ma gis opposition de salon bi est-ce que pare nañ pour jaamarloo pour yeewi Sénégal maa ngi wax ne leen maa ngi koy passé suñu Ababacar mii man ko man xam naa ay ay nit yoo xam ne ñu ngi dans le collectif C25 bi ay anciens candidats yi nga xam ñoo bëggoon bokk ci élection yi n'est-ce pas dañoo bëggoon bokk ci élection présidentielle yi ils ont été recalés xam naa ci kenn ki nga xam ne moom moo taxaw wax kooku moom maa ngi koy wax si Ababacar bi passé du ma tudd turam ngir ngir ormal ko ndaxte peut en privé sama benn xarit la ko wax donc du ma koy yoole si si biir mbedd bi mais moom Soham pourtant opposant la dégg naa ko temps mu ngi def ay chaque jour mu ngi wax te mu ngi ànd ak opposition bi mais moom nee na moom il préfère Sall gagné que yeneen opposants yi gagné bi ñu ko laajee pourquoi xam la la wax mais wax bu ñàkk solo ndeysaan mu ne parce que Macky bu gagné benn mandat def dem non il dafay muñ cinq du màggete gum carrément dina présenté waat nekk nekk président waaye bu benn opposant gagné n'est-ce pas bu bu gagner opposant gagné koo dafay fait deux mandats et il va être un peu vieux maanaam président du ko mënti nekk moom te instant yi il veut être président parce que dafa gént dañ ko géntal wala dafa am ñu ko s'étal, xaw ko ne ko yow soo nekkee président dëkk bi di baax yow da nga judd pour nekk président il n'est pas le seul il y en a beaucoup qui xam sincèrement au fond ils vont tout faire di ko waxul rek ils vont tout faire ils vont gagné mooy gënal peut-être que cette opposition ne joue pas franc jeu xam nga yàgg naa ko wax ba ma déjà euh, front démocratique sénégalais bi ba ñu defee def di def ay réunion diko défé bokk gis-gis fële ci Sacré-Cœur 3 mos naa dem benn réunion ben yoon donc man dama bokk ci front bi dama ci bokk par l'entremise de ñu sax de Tekki Diallo Mamadou Lamine Diallo bu ma si dugal c'est nit ku bax la ki nga xam franchement que je respecte beaucoup donc euh, ba ma ko ba ma gisee c'est une plateforme bi nga ñoo taxaw pour xeex lépp li nga xam ne jaarul yoon j'ai dit que mais pourquoi pas y adhérer dem gis gaay mais mu ñé xol gaay ma gis ñii dañoo pareegul

nañ xoolaat bu baax a baax fuy teg suñu tànk Sénégal gi ñun ñëpp ko bokk wala ñu nangu benn clique gu ndawa ndaw jël ñu en otage takk ñu charrette di ñu laxab war ñu koo nangu waaw suñ ko nangu wax dëgg yàlla ñàkk fayda te wax dëgg yàlla Sénégal daal euh, dafa war a soppeeku te ñi ko war a soppi jëm naa ne jamono bii ñoo ngi fii ndaw yi ko war a soppi aw kër mbubb mii gëm naa ne si ñu ko war a soppi la bokk ndaw yi ko war a soppi seeni loxo set seeni i xalaat sell ñu nekk ay am pas-pas bu wér fas yéene soppi dëkk bi dëkk bi soppi ko dooy alternance dooy alternative sax yi gars yi di wax c'est la république la ñu njëkk soppi n'est-ce pas république Seck Abdoulaye Sénégal <laughs> ñoom ñoom dama gis ni média média salopard Sénégal fii ñoom la Sénégal rek laa fi dégg fii comme média bi xam ne nit ki dafay fay cinq cent mille dafa leen ma article dafa la article wala ñu bind article nit li woo leen dama bëgg ngeen gëlem article ñu fayeko la ne la jox ñu nangam nit ñi génnee sa article te moom média la bi nga xam ne lu am njëriñ lu jëmale kanam waa Sénégal ñoom rusuñ koo waxtaanee il ne pose jamais de dëgg bu am solo maanaam euh, information yu utile yu booster le débat public le débat national am lu am solo même yow rus loolu ay wax yu ñàkk fay nag ay commérage yooyu la ñu bëggoon di rapporter euh, jéem a susciter euh, ay débat ay like ay commentaires ak ay vues et loolu wax dëgg yàlla un média bu sérieux bu respecté boppam daf ko war a jomb Sénégal man je n'ai aucun respect pour ñoom sincèrement dama xam ne c'est des vendus c'est des petits types ils sont pas au service de la de l'information ils vivent de l'information et une mauvaise information nag dañuy dagg benn benn leen lu ndaw li nga xam ne duñ la rapporter entièrement dagg leen lu ndaw li nga xam ne détaché de son contexte nit ki déglu ko ni i mere la te fekk wax dëgg yàlla loolu c'est pas honnête intellectuellement c'est pas honnête n'est-ce pas doy na waar loolu doy na waar mais média fen la ñoom ak TFM ñoo bokk mbuus ñoo bokk lu ñuy liggéey seen liggéey liggéey fen la yàlla na yàlla dimbali ñoom <laughs> sama gars yi mais ziar naa bu baax a baax vous allez ñu ngi ñu ngi doon wax léegi sànq ba dugg si wàllu diini bi ak euh, naka la ñu war a doxalee programme boobu gars yi am no Yérim Post moom kooku c'est un kooku c'est un violeur Yérim moom moom c'est un violeur moom Yérim moom su dëkk bu sérieux bu nekkoon dëkk bu sérieux dafa war a gàddaay daw génn Sénégal il fait son malin def di di di di man gisee passé muy wax di dugal Pape Alé Pape Alé lu ko waaye mënti wax Pape Alé c'est un patriote Pape Alé c'est un c'est un jambard de la gor la en tout cas ku ñu remercier le ñu je le remercie wax dëgg yàlla dama koy ñaanal parce que nit la bi nga sincèrement il a des principes au moins il a des principes principes manqué actuellement dans nos médias dans notre milieu politique dans nos milieux religieux ba sëriñ yi fii presque daf fi manqué mais naka la sëriñ taxawee Macky daal man gisuma kenn ku dul Macky li ñu defal kenn mosuñu koo defal Macky défaut le dara pour votre gouverne suñu xaalis la ñun ñun Sénégalais suñu xaalis la donc doy na waar daal doy na waar loolu donc y' a toujours eu un plan par rapport à li ma doon wax sànkoon y' a toujours eu un plan contre l'islam parce que l'islam on avait vu que l'islam wax dëgg yàlla moom moo nar a yàq euh, l'évolution ak euh, l'avancée euh, mbir yi non Madiambal moom wax dëgg yàlla yow tur bi sax xam nga nit yu baax yëpp ñu tudd ay Umar ay Ibrahim ay Muhammad ay Ababacar xam nga ko sa bàyyi xool ba sepp tudd la Madiambal man kooku amatuma lu wax ci moom la ñuy wax ci moom nañ ko bàyyi rek na jàmb doy na waar en tout cas y a toujours eu un plan euh, de légitimer et de faciliter l'entreprise coloniale dans la colonie loolu depuis temps AOF mu doon am maa ngi woon euh, li Paul Marty bind maa ngi wax sànq Georges Hardy gis-gisam par rapport ak l'école française donc euh, mbir yi yéeme na loolu ginnaaw AOF la communauté est venue la néocolonie a été créée la néocolonie actuelle mooy nek ni et la néocolonie continue c'est instant bataille ba tey ñu ci lolu. ñu ngi damat islam Senghor la tambalé. Senghor fii laa fi wax par rapport ak Bruno xam ndax ya ngi koy Il ya a un ami sax sama, ma du un ami sax c'est pas un ami donc c'est une connaissance de Facebook def ci un post di expliquer ndeysaan ndax ma japp sax ay parce que ma xam ni euh, li wax la mauvaise foi avec la malhonnêteté, incarné. Je n'ai jamais dit que Seigneur était un franc-maçon. Senghor n'était pas un franc-maçon. Senghor était un très bon chrétien. Bougum Dinim. N'est-ce pas? Euh, mais Seigneur avait sa femme, euh, Djabaram, Domou Félix Eboué, Ginette, la première femme, Bohma Colette. Ginette est la première femme de Seigneur. Ginette est la fille de Félix Eboué, gouverneur de l'AF plus grand franc-maçon mooy toutes les loges d'Afrique centrale Jette Eboué était une très grande maçonne et fait partie des premières figures féminines de la franc-maçonnerie jabaram moi, ko jàppale booster vers les grands cercles di ko jox ay connaissances pour franc-maçon maçons ko ce sont les francs-maçons qui jàppale Senghor là pour bëgg ko imposer au Sénégal Senghor n'a jamais voulu d'indépendance déjà Il de koy bind de ngi livre les républiques privées du Sénégal Senghor de ces gens battu pour l'indépendance Senghor n'a jamais voulu que le Sénégal ait indépendance discours du président a dit que nous am indépendance parce que indépendance baaxul si Le discours de gérésé. les ai je partage je c'est ces choses là qui sont publiques Ce n'est pas des secrets Senghor n'a jamais milité même avec Lamine Gueye pour l'indépendance du Sénégal et pourtant l'une du sort a fait qu'en en 60 ñoom lañ jël teg leen def leen suñu ay kilifa te ils n'ont jamais voulu l'indépendance Parce que ma déggee un père fondateur poste de Senghor mais un grand traître pendant que 60, Léopold président du Sénégal, pendant ce temps-là, il était ministre dans le gouvernement de Debré. De percevoir les allocations de ministre français jusqu'à 1961. Il a eu allocation en tant que ministre français. Quelqu'un qui est président, n'est le ministre français. C'est grave. C'est grave. Donc, Senghor n'a jamais voulu dépenses au Sénégal. Senghor n'a pas des francs-maçons qui ont fait. Il a islam. Senghor avait dit, si ben avec, le ne sais du si je maire, bon, je m'en moque. Seigneur, Senghor, on avait demandé de désislamiser le Sénégal, de, continuer la bataille d'islamisation au Sénégal. Seigneur a dit clairement que le Sénégal, nous voulons faire chrétiens. Je ne pourrais pas. Mais j'essaierai d'en faire de mauvais musulmans. Seigneur était un assassin. Seigneur, événement décembre, le 1er décembre, passé une vidéo de décembre, il y a eu plus de 40 morts, la police, plus de 250 blessés. Senghor, il mentait devant la, devant, devant la, devant la journaliste là, de non, c'était pour le maintien de la démocratie.

pour le respect de l'islam au Sénégal au contraire sax il a attaqué dafa fekk jamono boobu nag fii dafa safoon sàpp fi ay kilifa fi nekkoon Senghor dafa fekk ay kilifa yu mat kilifa rek ñoom sëñ Fallou fi nekkoon ñoom El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñoom Cheikh Ibrahima Niass ñoom Baye Mandione ñoom Thierno Seydou Nour Tall dafa amoon ay kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla ay kilifa lañu Sénégal bi nag suñu dañoo manqué kilifa lii mooy suñu problème moo tax saay yi fi nekkoon démb ak barki démb doon jéem xool ñu fagaagalee diine bi saay-saay yooyu doon dellu ginnaaw jamono bi delootuñu ginnaaw ndax xam ni en face y' a plus rien ay ay ay a que de la coque y' a que de la paille il y' a que de la littérature hein, en fait donc Senghor mission bi la nekkoon ci jéem a yàq l'islam non Blondin c'est est un grand daanaan Blondin il s' battu mais ça euh, ñeneen ak ñeneen ak ak donc euh, c' est pas le seul c'est une Blondin victime la n' ce pas donc Senghor jóge fi teg fi Abdou Diouf c' pas sa volonté abdouf Diouf dañ ko imposer Senghor bu mu teg ko imposé bu ñu imposé Senghor Abdou Diouf moo taxoon sax yenn mag parti socialiste yi bàyyi woon ndax Abdou Diouf gën leen woon nekk kilifa ëpp leen woon grave ci biir parti bi dàqu leen woon milité dàqu leen woon wax mais on a imposé Abdou Diouf au parti et au pays Abdou Diouf tamit il a dit si ay mémoires yi wax mémoire bi dina leen ngeen ubbi ngeen lire ko dans ses mémoires sax nee moom def na tout sax pour dindi polygamie au Sénégal mais il n'a pas réussi xam nga ku bëgg dindi polygamie kon xam nga islam problème mu islam la euh, Abdou musul jéem dimbali au contraire il a tout fait déjà moom moo njëkk a trahir sëriñ yi xalif généraux Sénégal bi yëpp nag El Hadj Aziz Dabakh Cheikh Ibrahima Niass ñoom sëñ Fall ñoom sëñ Saliou ñoom ñëpp les a trahi dans le code du statut personnel bi xam ne moo doon laal code code de la famille bu Sénégal bu bëggoon changer en 1971 Senghor la joxoon euh, pour mu piloter ko ba ñu bindee sëriñ yi sëriñ yëpp bind seen xalaat y avait 74 articles yu doon xeex charatu islam yi yu contrôle Alquran Abdou Diouf dafa faalewul seen ay wax daf ko jël yóbbu ko voté ko en plus d'urgence pour def ko mu ko Abdou Diouf ko mosul faa diine il a tout fait pour xeex diine bi Sénégal Wade kazalik Wade moom derrière son élan de talibé Wade a bataillé contre l'islam Wade moom wax dëgg yàlla li mu fi imam yeeg ñëpp li mu wax ni gay xam nañ ko wax dëgg yàlla jarul naxasaale on a maté les imams on les a dàq di leen grand mosquée doole lekk mosquée Wade moom su soo magistère mbir dafa leer même bu dee mu doon mbubboo Touba nag waaw mais Wade ne n'est pas un mouride loolu moom Sidy Lamine moo fi njëkk wax sa gars yi andi ko problème mais Wade n'est pas mouride il n'est pas talibé Wade est un donc euh, lii dafa doy waar daal donc Wade jóge si jox nguur gi Macky Macky wax dëgg yàlla l'islam ñor l'islam ñoru ko moom Macky yaa xamul dara si islam ki yor salaatu ala fatiha naan ay raja radiateur xam nga ni kii l'islam xamul si dara bu si tegee nag léegi jël jumaa yi di ko fooy jàpp suñu jumaa def ko def ko di ko ñàkkal fayda jël jumaa yi mu koy peinture ay couleur parti am muy wane carrément ne parti am moo gën a important parti yàlla bi te allah inna xisbullahi xisbullahi mooy la parti de Dieu parti de Dieu mooy alquran mooy sunna mooy din l'islam moom bu dee parti am la jàpp moo gën a important parti yàlla bi ba mu jël parti am bëgg ko dugal ci biir parti yàlla bëgg réeral parti yàlla bi di jënd ay imam di di neexal ay imam ñu koy waxal imam grande mosquée bi moom moom imamam la imam Macky Sall n'est-ce tabax ay jumaa di ko di ko de di inauguré ay jumaa di fa ñàkkal fayda diine islam lii bu koy def wax dëgg yàlla mais c'est clair jël sëriñ fii sëriñ kilifa kilifa diine yëpp faale wu nañ kaawu kaawu ñoom Khalifa Sall ak kaawu Karima kaa yëpp ñu si on n'a pas la courte dëgg yàlla sëriñ bi ko ñaan ne ko ñoo bëgg ne maa bañ du ma ko def du ma ko def du ko def kooku amu fi kilifa kooku di këli diine fii du ay kilifaam Macky man màq mu fa demee sama damaa tiit ci màq sax. c'est vrai que il a trouvé là-bas ses amis parce que la famille royale des francs-maçons ils sont en collaboration avec les américains Nous, supposons des républicains républicains des maçons la république des maçons mais ils traitent aussi avec des juifs ils sont alliés pour les chiites donc le problème arabe, c'est le problème de pour chia c'est a euh, comment dirais-je euh, juif moo gën a yées américain moo gën a donc juif pour xeex chiite donc y y a une alliance aujourd'hui euh, américaine euh, Israël Arabie Saoudite ak ay alliés dans le Proche et Moyen-Orient contre Iran Iran bi a ses alliés c'est l'URSS c'est la Chine c'est d'autres pays c'est le Yémen

ñi daa gën gis ñoo gën am taxawaay ci taxaw lislaam te ñii jamono bii nag ñu si bëri wax dëgg yàlla ah dafa mel ni dañoo ñemetul wax wala boog dañoo jàpp ni seen wax amul njëriñ wala ñoo gis suñu waxee kenn la déglu ba tax na daal islam tumuranke na loolu ci dëkk bi ñu koy foowee nag ñu ngi jëm ci élection yi xam ne élection yu doy waar la élection yu significatif la gëw ma ne élection gën na ko màgg fii Sénégal 2019 bi ñu jëm élection bu rëy rëy la le premier le président de a 2019 il le grand le grand responsable de la gouvernance pétrolière et gazière dañuy ñuy le temps yi a yàgg na fi a na fi découvrir que le pétrole gaz a nañ ko Sénégal Il a a commencé de a nag dafa am exportation exploitation baisse euh, new look commencé après 2019 2020 2021 etc. Le président a nag mu opportunité euh, le Sénégal ne sera pas riche les genre doivent se tromper la richesse du ressource kese moo koy joxe liggéeyee koy joxe et ku yor ressource am nga les prérequis pour am richesse ginnaaw nga nangu transformer ressources yooyu en richesse donc il nous faudra travailler encore travailler très bien travailler et travailler nag euh, avec justice et équité et di nag wax dëgg yàlla euh, en en Macky Sall mi ak équipe li ñuy bañ bëgguñu liggéey bëgguñu liggéey politique la ñu bëgg Macky Sall ñi mun na mel sant leen ñu liggéey politique leen sant je donne toujours le cas de Siraja à la poste Macky Ja Macky Sall liggéey loowu ko sant ko mu liggéey daf ko sant ne ko politique ma Thiès parce que bokk na ci arme yu Macky yoroon pour mën a déstabiliser ak wàññi doole Idriss Seck à Thiès donc Siraja a joué cette carte là ak ñeneen ak ñeneen ñoom Abdou Mbow ñu bëri c'est yaa dëkk bu nekk am na fa ay lieutenant yoo xam ñoom dafa jox mission leen liggéey leen ma fii donc c'est ça son travail donc ki nga xam ne nag moo ko équipe yëpp liggéey ñu pour ñun ah ñu war a ñu am jom wala ñu xaar suñu bopp wala ñu ci góorgóorlu daal wala ñu góorgóorlu jël suñu destin en le grand empaté maa ngi lay ziar nga empaté yow namm naa la de namm naa lu bari gis nañ gisante gis nañ gisante trop ci nawet bi gisatuma temps yëpp man dama jàppoon temps yi nekkoo fi sax donc macha allah dafa mel ni daal suñu kii bi yàgg nañ de Malick Ndaw Malick Ndaw ziar naa la ñoom New Africa jàmm. Cheikh Abdoulaye Malick Macky kay moom wax dëgg yàlla ma war na dem inaugurer cellule am nag biir biir parc Hann waaw wax dëgg yàlla <laughs> daf ko fekk inauguré sa gàlle bul ko nangou mu ñëw fa ndax mom il porte la poisse waaw bu ko bu fa nangou mu ñëw fa bu fa ñëw de bu ko nangou donc ils n'ont pas été nommés pour travailler pour dëkk wax dëgg yàlla la preuve la preuve manifeste

ñàkk jot baax na trop sa ñàmpaate waaw kilifa du am jot gu bëri jot musiba la yàlla ñu yàlla defal tawfiix incha allah yàlla sàmm réew mi sàmmal ñu waa réew mi defal ñu jàmm ci réew mi te jàmm jooju kat mu ngi tàmbalee si ñëpp def yoon ñëpp teg ko ci yoon te Macky Sall fas ko teg yoon te du ko teg ci yoon kon jàmm lu mun am n'est-ce pas kon jàmm lu mun am n'est-ce pas wax dëgg yàlla nag mbir yi nag dafa am li nga xam ne jihaat la Ah. ah Mané wali Mané wali maa ngi lay ziar bu baax macha allah lu wër nga wax l'invocation donc l'invocation moy moy suñu arme sax adduwaaw silahul mu'min walakin waye attention nag alquran suñu kessé ñu nekk ci ci ay ci ay dua de ñu salaai sam bala mu ñu yobbu ci duwaawam dafa wax si hadith man raa minkum munkaran falyughayyirhu daf ñu woo ci taxyir au changement ne changé leen ko bu leen gisee dul yoon changé leen ko imma bi yeddika mooy par l'acte defal pour mu changé aw bi li sanika fi nanta sa tiyaa maanaam wala nga wax ci bu dee changé wu soo defee ñaari mutta mu ne fi xal bi xalbika wa zalika ad aful iman mu ne nga mettit lu ko sa xol donte ba gannaaw ba nga ci defee wax si nga mettit lu ko nag te ñaan donc attention l'invocation elle a moom mooy suñu arme de premier ak de dernier recours entre les deux nag yaa lat alquran yàlla mosul wax ni eh yéen ñii di wax yàlla dina amanu wa amilu lay wax toujours te di jëf Dieu nous appelle bil amal à l'acte à l'action yàlla woon si ay wax de waxul yéen ñiy gëm te di wax lu baax nono non yéen ñiy gëm te di def lu baax la wax yàlla dina amanu wa amilu saalihaati donc attention ñu on doit agir de dañoo war a def nag dañu wara def da nga dégg ay gaana yi non yàlla moy joxe nguur allahumma malikal mulki tutil mulku man tasha wa tanzilul mulku man tasha non non lo moy lo waxe loolu moy lan bu yàlla doon joxe nguur pare bu ken xex borom nguur yàlla du yoni musa ne ko xeexal mak firawna innahu taxa izhab ila firawna n'est-ce pas donc izhab ila firawna innahu taxa donc yàlla du wo musa pour mu dem xex ak saway mané un despote un lâche di yàq yàlla fo yabal juut ne wax leen ak mom te jëf len ci mom pour nous changer te nag Sénégal nag qu'on le veuille ou pas c'est un pays musulman Sénégal bii pays musulman la dañ fi nangul appliquer l'islam rek waaye pays musulman la len moo ne woon nag man lam yaxtam bi amril muslimina falaysa minhum ku mbiru jullit ñi intéressé wul ba mu nekk ci carrément nee na parce que bokkul si jullit yi moo tax n'est-ce pas kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax abi nabi rasul Ndiaye ñu ngi lay ziar lu bëree bëri bëri Mais moi, j'étais pas, ah, bah, bah, moi, j'étais pas au courant qu'il y a eu. On a saccagé euh, le siège de Pastef à 2h40 du matin. Ah ouais, mais dès qu'il y a des nervis, hein. il faut s'attendre à ça. Fait qu'une saccage ce parti, il faut savoir que c'est des nervis qui le font. Pour plaire à le patron, hein. il faut prendre les dispositions qu'il faut. Surtout qu'il faut travailler en amont et en aval, tu vois le Donc il faut travailler pour le peuple. Maintenant, quand il y a Euh, l'islam daal laa jàpp ne war nañu ko xeexal ci réew mi mooy seule solution ma gis pour defar réew mi l'islam à part l'islam gisuma leneen sincèrement je ne rien d'autre yàlla yàlla suturaal ñu incha allah yàlla na yàlla defal ñu tawfiix na yàlla def fi yiw encore une fois sëriñ yi sëriñ Sénégal yi sëriñ Sénégal yi ñoom laay xam sëriñ tarixa yi damay déggaan l'islam du Sénégal est confrérique c'est pas vrai l'islam du Sénégal l'islam confrérique n'existe pas may wax sànq na leen yaa ngi gis sànq maa ngi wax sànq waxu Paul Marty l'islam du Sénégal l'islam de la Mauritanie l'islam de français ñu koy wax jamono bii l'islam des États-Unis l'islam amul l'islam de fii l'islam de l'islam mooy l'islam l'islam conflict amul l'islam diine la bi nga xam ne moom kese mooy dëgg dama ne diine bi du confrérie ñoo ko andi Sénégal l'islam est venu au Sénégal en 1040 la sànq les premiers peuples yi fi njëkk dugg ci islam c' est les Toucouleurs parce que le Tekru du Fouta moo njëkk islamisé au Sénégal c' est les Mandingues les wolof n' est ce pas soninke yi Toucouleurs yi ak wolof yi ñetti ñi ñoo fi njëkk jàpp l'islam donc l'islam moo fi dugg confrérie yi ñoo ko fi andi woon de c' était pas les confréries yi ñoom Thierno Souleymane Baal am ñoon confrérie yi bokkuloon si benn tarixa n' est ce pas bokkuloon si tarixa am ñu Kan gars yi ay tarixa de donc euh, il faut ñu comprendre bu baax a baax ne tarixa bonus la xam ne question de benn on on parle de confrérie question de yow lak say frère question de benn fraternité la entre yéen mais dama ne l' li am solo moy islam mom kese mo jara sam mo jara xeex mo jara taxawal dama ne fi la guerre des marabouts xamna naa ngeen ko la révolte des marabouts entre 1673 1677 li histoire la dañ ko wara xam xam leen ni Sénégal les marabouts de la sénégal bi de la Mauritanie euh, du Mali du Niger du de la Guinée fait une alliance pour que les négriers yi fi nekkoon lii histoire dañ koy nëbb nag kaay ko mais kilifa diine yi mosuñu toog noppi dañoo yàgg xeex ils ont ils sont battus contre les les négriers ñi ont xam une traite négrière ils se sont battus parce qu'ils avaient aboli l'esclavage bien avant Victor Schœlcher Victor Schœlcher ba lañ ko waxal 1848 la traite négrière a été abolie bien avant déjà il n'y avait pas d'esclaves la révolution d'Enyankobé disait clairement que l'esclavage n'est-ce pas donc euh, il faut Wardjabi, oui du waalo Wardjabi, effectivement euh, converti et le le a toujours été une grande démocratie le ba nga ne le braque islam il n'a pas obligé son peuple nu tuub dafa nekkat di le ci li Le li Le lu le en tout cas woo naa la nga gis ni il a été respectueux de son peuple waar jaabi effectivement moom moo tax ma ne sax les wolof parce que le Tekru du Fouta la ak le waalo le waalo était composé de wolof n'est-ce pas ak les mandeng maanaam donc ñu ñëw njëkk dugg si islam te ñu c'était pas ay tarixa attention l'islam du Sénégal n'est pas confrérique c'est un islam qui est authentique fi jaaroon yëpp ñoom seen identité moo nekkoon ay juut lañu chaque fois damay joxe misaalu Ibrahima Niass moom moo wax ne moom balaa muy fàttaliku ni taalibe cheikh la maanaam balaa muy fàttaliku ni tijaan la waxtu lazim jot sinon à part ça jullit buy dox la c'est pas pour rien naa tuddee ko cheikh al islam parce que islam loolu xeexal damay nañu xeexal islam te bàyyi par par loolu te islam dafa ñu sant ñu wax dëgg te yàlla tax ñu bañ a gëm ay nit ñu gëm yàlla bu leen ragal yàlla ragal leen bu leen ragal ay nit ragal leen yàlla sëriñ nag lu ñu war a fàttali ragal leen yàlla te ngeen wax dëgg te yàlla tax teraanga bi ngeen yàlla may du nitu nguur yi ñoo ñooñ ko jox Macky Sall ministre ak yëpp nekkul ñoom ñoo tax ngeen nekk kilifa kilifteef gi seen maama liggéey liggéeyoon ñu leen di màggal ngir seeni maam balaa Macky Sall di fi ñëw gaa yi doon màggal leen jox ay addiya leen andi ay jasneer donc bu leen yaakaar ni Macky Sall kese moo leen jox teraanga wax leen ko dëgg te yàlla tax ça va vous ñax ko wax dëgg na leen ñàkkal fayda na leen tuutil maa ngi gis jamono bi réseaux sociaux yi ay sëriñ yuy bay saaga nday sëriñ dem sëñ bi taxul taxawaayam taxul ci place am alaaji abdu daaw gis ci biir téléphone ci biir ci biir whatsapp da doo gis ay castam ñu koy teg kenn di ko saaga parce que il dit la vérité n'est-ce pas donc nañ nekk si dëgg servons la vérité incha allah loolu kese moo ñuy moo ñuy grandir donc maa ngi leen di ziare ñëpp bu baax di leen béggee waaw ah, jël nañ temps bu bëri nag on a beaucoup parlé man xaatu moom sañ def temps bi yëpp je voulais def benn une heure de temps maximum rek waaye mu jëlee def deux heures et quelques donc euh, macha allah yàlla na yàlla defal taw tawféex sëriñ yi mosuñoo des ginnaaw ci histoire Sénégal ci guerre sainte ci xeex contre les athées ci xeex contre l'ordre colonial ci xeex contre les négriers ci xeex tout ce qui est injustice ci xeex le modèle euh, euh, aristocratique li yëpp sëriñ ñoo ko génne Sénégal ñoo fi xeex donc on vous attend na ngeen xeex caay-caay gii nekk instant ci dëkk bi loolu la ñuy xaare sëriñ yi dëgg yàlla ku ci nekk yàlla na la yàlla barkeel yal na yàlla yokk sa leer yokk say fan ku ci nekk tamit ku ci nekkul it yal na yàlla alak sax yow sa bopp na yàlla alak yàlla bu yàlla guddal say fan yal na la yàlla ñàkkal fay ba doo amate addiya waaw lii daal mooy li may ñaanal sëriñ bu fi nekkal dëgg rek yal yàlla màggal yal la yàlla teral yal yàlla sàmm sëñ bu fi nekkulul dëgg di nekk ci ay caaxaan yal yàlla alak yal na la yàlla yàlla boo am benn teraanga waaw lii daal macha allah mooy sama ñaan <laughs> waaw Adama Mbodj eh, New Africa waaw maa ngi leen di bégg bu baax a baax di kontaan waaw c'est vrai que dafay guddee nag guddi bi mooy am solo xam nga ñun dafa ñu dimbali defuñu live pour am ay vues defuñu live pour am pour am ay fans defuñu live it pour plaire wax dëgg yàlla dañuy wax su àq te yàlla rek tax di def suñu wareef ndax suñu dee yàlla nañ yéen li amoon la moo tax waxu leen si ndax yàlla nee na def si wax si ba paree nag après nga métti lu ko sa xol n'est-ce pas donc noonu rek la demee macha allah. donc euh, yàlla na yàlla defal ñu taw féex Zilo Seka Seka maa ngi lay béggee bu wér a wér a wér waaye waaw gis nga yéen li nga lii mooy lii mooy suñu daayira bi mooy daayira du soir toog waxtaan entre copains ñuy waxtaan rek lii waxtaan kese la donc euh, c'est nervi de Badiane ah waaw man je savais que ay nervi la ah xaw ma lan du feu gis ay mag mag yu ñàkk fayda ñu ñàkk jom sol leen ay yére xaw ma la ñu leen soldat du feu ñi xam ne nii nañ yàq dëkk bi du yemul si ñoom Macky Sall loué na ba loué ay mercenaires il avait prévu ma waxoon naa ko fii ci live wax naa ko depuis daw instant il a prévu des mercenaires jóge ba ay parce que dëkk bi instant yi ah saa waay il va essayer d' installer le chaos parce que sàcc muy sàcc ñëpp gis nañ ko xam nañ ko te gars di ko ci bàyyi te tamit il est prêt à tout pour son mandat mandat bi fii la fii mu ta sax euh, waa ji euh, waa ji rek mu ta sax bésu ñàkk euh, Serigne Mansour Serigne Mansour si Jamil fii fi taxaw premier jour premier jour bu Macky gagné élection mandat bi ne le deuxième mandat c'est grave premier premier gagné deuxième mandat ne il y tient donc si xam-xam bu bu weng bu jeng moo gën a bon ci dëkk voilà marron du feu merci pas, <laughs> Borom xam-xam bu jeng ak kilifa ak njiit bu yërëmul xeetam yii ñoo gën a bon ci dëkk te yëpp dañ ko dajale dañ ko dajale ñun si dëkk bi Macky Sall dafay fen fenkat la Macky Sall yërëmul xeetam dafa soxor il est méchant il est très petit il n'est pas élégant en face il y a quoi il y a des sëriñ majoritairement ay opportunistes lañ waxuma ñëpp nag mais majoritairement c'est des opportunistes de petit type yoo xam ne ragal ñu yàlla ragal ñu faale ñu bi dañuy meew rek addi la ñu faale ak seen soxna yi ñu waxante dëgg dëkk bi ñoru leen waa dëkk bi ñoroon leen c'est normal de ils sont dans leur confort dañoo nekk si benn confort bi xam ne soo demee seen kër yi xam ne si confort la amuñu entreprise waaye seen kër yi ay clim ay ngan di oto am ay jasneer yu baax la ñuy def ay jabar yu xees rafet la ñu am man sëriñ ñu ngi dund de ils son si benn dund bu neex bi xam ne may rappelé rek man l'église avant la révolution française l'église était vraiment ay bosse la woon ils étaient embourgeoisés ils étaient vraiment ouh mais révolution bi moo taxoon gars yi foofu ñu war a église foofu ñu nangu seen ay biens ñoo nangu seen ay biens yëpp donc euh, lii doy na wóor doy na waar trop doy na waar ñu war ci bàyyi xel nag war nañ ci bàyyi ba nañ ci bàyyi xel bu baax a baax sëriñ mafieux yi ñu wax les religieux mafieux nañ ci bàyyi xel avec les politiciens véreux coalition bi ñaar yi coalition bu mortel la bomb bu grave la pour Sénégal il va falloir qu'on y remédie na gars bàyyi naa féq nag gis naa gars yi sànni xeer politiciens politiciens transhumants lañu ñu si bëri effectivement c'est transhumant ñoom Jules Ndeye ñoom Ousmane Ngom ñëpp on les a ñoom Fada ak Gaye mais sëriñ transhumant yi da ngeen fàtte xanaa ñu fi gën a bëri président bu ñëw ñu ne ko yaa ñu gënal ñëpp lu ñu defal kenn mësuñu ko defal ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay ñaan yàlla na yàlla may deuxième mandat ñoo gën nekk transhumant tout le monde leen ngay tudd il faut pas qu'on fasse un poids deux mesures rek ngay waxante dëgg n'est-ce pas ñu war a nag feeñal ñu war a feeñal pare leen ne bu leen kenn jox addiya defar sax ay comité saaga <laughs> macha allah mais ziar naa bu baax a baax di nga sama benn xarit nag bu may envoyé message ne ma yow eh, yow ak Serigne si daal di noppi ndax kooku moom te maa jox tey information yu bëri par rapport ak série yi ak saay-saay yi nekk fi instant yi daal di média ak Facebook ci série yu bon yi nga xam ne euh, agenda la de fooy xam ne agenda bu doy waar la on veut pervertir cette société là gars yi ils le veulent le faire et ils vont le fair nag suñu rester passif dara. nanguwaatuñu le contrôle de nos médias sincèrement ils vont le faire di nga fii tuuti ay film fóonante raayante euh, sëy en direct ñu koy xool comme ñuy tubaab yi ñuy def gars yi ñu ko garaawalati te instant yi gars yi ñoo ko commencé instant yi bi les jeunes le font parce que commencé di population bi y avait une ambition ambition moo nekkoon bëgg Sénégal en l'an 2000 Dakar sera comme Paris comme Paris bi du question tabacité, du développement du non non et les Français n'ont jamais eu la volonté d'avoir des colonies développées Parce qu'ils développé ils dañuy cette autorité pour les maîtriser les manipuler donc ils n'ont jamais voulu que nous aider au développement ont voulu nous rester dans le sous-développement pour nous manipuler de manipuler nous nous nous, mais nous mais Sénégal sera Dakar sera comme Paris c'est juste par rapport à la construction de cette euh, de cette mondialisation là n'est-ce pas construction bi la gars c'est-à-dire que aujourd'hui avons jàngal dëkk xay bi ay le petit l'éducation sexuelle des enfants ay homosexualité gars yi légaliser ko n'est-ce pas Nous avons des rapports sexuels nous avons des mariage de amati gars en concubinage API yi bëri lii yëpp mooy lii yëpp dil n'est-ce pas dil bi des na ko gars nous na des Français société à Paris boo ñëwee Dakar tout ça pas dépaysé soo xoolee solo bi solo gi bon na ay baal ak ay mini ay suufes boo xoolee jikko ji tamit jikko ji jikko ju bon lay nekk jikko tubaab pire lay nekk gars yi bàyyi seen yaay commencé di seen appartement dëkk seul bañ a habiter avec leurs parents jékki-jékki maison de retraite yi commencé ñëw gars yi commencé sànni papa ak yaay yi foofu c'est que société tubaab la gars yi bëgg transposer fii gis ay parents sax seen doom pour ñoom seen doom ay tubaab lañu n'est-ce pas oui papa euh, non laisse comme ay tubaab loolu mooy Dakar Salam Compagnie nañ ko bàyyi xel bu baax agenda la aujourd'hui les médias à travers ces téléfilms là le gars yi bëgg yóbbu parce que une nañu novelas Une nañu novelas technique novelas yi novelas brésilien yi Brésil moom dëkk bu asaru ça. foofu nga fa gis sax ay plages yi xam ne ay São plage ou taatu nen n'est-ce pas Il ay carnaval taatu nen doxantu taatu nen moo fa am fii dañuy publicité c'est l'Afrique, tu as raison kiss, bi kiss. mais c'est des préservatifs

doy na waar waa doy na waar lool yal na yàlla suturaal yal na yàlla def jàmm ci réew mi na yàlla def ñu ay dëgg-dëgg jullit yal na yàlla may ndam ci réew mi yàlla ñu dem ba suñu constitution bi ñu soppi ko ndax ñun on veut pas la république suñu article boobu naan la forme kenn du Sénégal moom est inamovible kenn du ko changé yàlla nañu ko yàlla dindil ba ñu am une théocratie di attewoo yàlla nee na yent bi nee na yàlla ñu fi am conseil supérieur islamique bi nga xam ne lépp luy loi lu assemblée di voté sax ñu koy dugal foofu ñu xool lan la ci islam wax lan la ci christianisme wax suñ ko validé ñu soog ko doxal si dëkk bi donc ñun dëkk bi dëkk bi yàllaa ko moom waaw dëkk bi yàllaa ko bu ko gars fàtte dëkk bi yàllaa ko moom wax ak sama yaay semaine bii di ko fontoo mu wax rek mu ne ko waaye barki borom mit na bàyyi waaw barki borom tuyaawan mu retaan quoi mu ne ko mais borom tuyaawan bi mu ne mën na bàyyi muy wax nii du sëriñ yi de du sëriñ yi mu ne ko man waxuma ko moom sëriñ yi moom dara sëriñ moom sax seen bopp ma yàgg mu yow ma ne ko ma yow Maodo moomul Tiwaawan Baay moomul kaw Kaolack Bamba moomul tubaa dama ne yàllaa moom suufam bi moom asamaan moom nekk seen diggante bu gars yi fontoo yàlla waaye dëkk bi yàlla nañ ko defar teg ko ci loxo yàlla yàlla ilif ko incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw mooy sama ñaan ma ci leen ñaan leen ñëpp nag di leen ziar bu baax a baax euh, di jégaluwaat encore ci kàddu yi ndax di kàddu yi léeg-léeg dañuy xaw a déraper nest donc dañ ci xaw a déraper léeg-léeg xam nga des fois xol la ñuy waxee léegi tamit wax bi tam mun na am mu mu xaw a choqué wala mu xaw a metti kenn ñu koy tudd di ko jégalu nit yi matuñu ay nit lañ kese du ñu ay wens du ñu ay wàllu yàlla donc ay kàccoor yu ndaw rek la ñuy xam ne daal dëgg yàlla am nañ lu ñu metti si dëkk bi nag ndax on se sent étranger dans ce dans ce pays là n' n'est-ce pas dëkk bi ñu ko war a soppi dañ ko war a tabax jébbal ko dëgg-dëgg boromam te boromam mooy yàlla subhanahu wa taala ndax ñi tabaxoon dëkk bi doon xeex pour dëkk bi

donc conflit boobu moom mënul woon yomb donc mënul woon yomb bokk ñu bëgg-bëgg donc macha allah yàlla na yàlla suturaal waaye dafa ñu tawfiix donc wa axiri daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu